benn la fi amul ñaar yaqini ila al janna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 ñu leen di dig daje ajuma ak jàmm yaqini ila aljannati ma laysa yuxmadu رسول كريم بيتنا سار أحمد وخاز والموت وجعل سرمدا رسول سفي في البرايا محمد محمد المختار والعود أحمد أتاني بسم الله جمت هبات بشير حبيب والأسى قبل محمد لقد جاني في البرزان على كل مخلوق به الخلق تسند مديه رسول الله رسولا كريما مثله ليس يولد لقد مات من مسن المخافى محمدا ياكي وليدا خدمدا دعاء أماني ومن لم يهوني فيطرد علمت لدى الأبرار والبر والملا بأن المقفى سيد الخلق مفرد إذا ما مدى مصطفى فجأة أكون جاء بسرى لمن دام يسجد مدحت الجواد الباسل الأنبار مسبدا ومن جودي منهار rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil anbiyaai wal mursalin sayidina wa mawlana muhammadin ilmakin wa ala alihi wa ashaabihi ajmahin rabbi israh li sadri wa yasir li amri wahlul uqdata min lisaani yafqahu qawli waj'al kalaami rashidan wa murshidan wa fikrati nawwir wa qalbi arshida mbokki assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu am nañu mbégte dellu siwaat ci seen rajo Futur Média RFM Dakar 94 point 0 ci seen jataayu émission bu mag bi nga xam ne moom la ñu baaxoo di ànd ak yéen àjjuma bu jot bu 23h jotee jàpp 2h du matin mu di seen émission yóbbalu jullit ngeen baaxoo de ci ànd ak seen mbokk Serigne Mamor Mbacke kennal Serigne Touba. Mouhamadou Makhtar Samb moo ñu nekkal ci wàllu xarale gi ñu koy gërëm bu baax di ko sant ci kon mbokk ñu leen di fàttali ne tey ji la àjjuma vendredi dépôt ak le mais mai 2024 ay ci kon Makhtar na woon fa woon nga daal di may yëngalal foofu rek ñu dugg ci programme émission bi dem ci waxtaan bi la ko jiitu nuyoo bi ak la ca topp ñu dem te ñëw yàlla defuloo kenn luy tee mooy toog di la wéetal di la sant di la jaamu jëf nga nga ya lañu naru kontam wat bay toog di ko joytu buñ ko làmbaatoo daj njëriñ yaa salaamu yàlla dafa dul teggin ñuy toog dina xarte xorondom yay baagantey riime jërëjëf Makhtar Samb jërëjëf it mbokki auditeur ak sax auditrice yu rajo Futurs Médias rawatina seen émission Yóbbalu Jullit ñu leen di gërëm bu baax di leen sant di leen jaajëfal ci kóllëre gi ak fidélité gi waxtu bu ne ak saa su nekk ñu ngi ci mbégte bu baax a baax ñun waa rajo Futurs média Eh, ci kon mbokk ñu daal di door seen émission yóbbalu julli tàmbalee ko ak pàcc bu njëkk bi nga xam ne moom lañuy tuddee rajo service bi daañu ko doore ak waxtu julli li ko tàmbalee ëllëg ak jàmm bu ci yàlla àndee eh, samedi lay doon la 11 mai 2024 wala dëppoo ak eh, ñaari fan ci weeru diggi tabaski ci atum 1445. Maxtaar Samb suba la kon 11 mais 11 mai mooy bis bi ñu jagleel tuxum yàmba ci àddina ngël këpp. Eh, kon suba la ñuy màggal yàmba ñun ñu ñu bàyyi ci xel eh, ci kon mbokk yi suba ak jàmm lañu koy doori waxtu julli ñu ko doori fii ci Ndakaar yi <laughs> tuxkatu yàmba yi boo moytul ña ngi may xonjoom ay amul problème du ci dara daañu continuer ci jàmm <laughs> ci kon suba ak jàmm eh, bu ci yàlla àndee waxtu eh, julli daañu ko doore fii ci ndakaaru Ndiaye Dial bi nga xam ne eh, moom moo di capitale bu Sénégal suba ak jàmm 5h33 minutes la ñuy julli suba. Tisbar 13h36 takkusaan niki noonu 16h36 minutes timis 19h32 gee 20h43 minutes. région Diourbel lañ ciy teg ak la ville dëkk bu sell bale di Touba Mbacké ñoom suba ak jàmm 5h27 la ñuy julli suba tisbaar 13h30 takkusaan ni ki noonu 16h30 minutes timis 19h26 ge 20h37 minutes leneen la ca topp muy Fatick kon di dëkku président Macky Sall ñoom suba ak jàmm 5h29 la ñuy julli suba tisbaar 13h32 takkusaan ni ki noonu 16 h timis 19 heures 28 gee 20 heures 39 minutes Louga loo di Kër Mbërgu Bala ñaan ñoom suba ak jàmm 5 heures 25 la ñuy julli suba tisbaar 13 heures 28 ak sànni ki noonu 16 vingt 28 timis 19 heures 24 gee 20 heures 35 minutes Kaolack Ndangaan ak Midina bay ñas dëkku seexal islaam di El Hadji Ibrahima Niass Baye Niass jàppalew na Niassine di dëkku maam Khalifa ñas ngin ngi néew di dëkku Makumba Bey ñoom suba ak jàmm. 5h29 la ñuy julli suba tisbaar 13h32 takkusaan niki doon 16h32 minutes timis 19h28 gee 20h39 minutes. Kolda ñoom suba ak euh, jàmm Kolda sax ak waa maatam ñoom ñëpp la ñu ko boole suba 5h22 la ñuy julli suba tisbaar 13h25 takkusaan niki doon 16h25 minutes timis 19h21 gee 20h32 euh, minutes. Saint-Louis Ndar Géej dëkku El Hadji Alioune Badara Diagne Golbert waa kër Malal Signor Diagne yooyu le ñoom suba ak jàmm 5h25 minutes la ñuy julli suba. Tisbar 13h28 takkusaan niki noonu 16h28 timis 19h24 gee 20h. 35 minutes Tambacounda ñoom suba 5h19 la ñuy julli suba tisba 13h30 13h22 Euh, takkusaan ni ki doonu 16 heures 22 minutes timis 19 heures 16 gée 20 heures 29 euh, minutes. Thiès benn dëkk yaari ak Tiwaawan la ville sainte dëkku Seex Seydi Hadji Malick Sy bàyyi Serigne Babacar Sy jàppu Ndiassane di dëkku Seexal Bekay Kunta ak Nja Canaba sekk di dëkku maam Amari Ndak Seck ñoom suba ak jàmm 5h31 minutes la ñuy julli suba tisba 13h34 ki doonu. 16h34 minutes timis 19h30 ge 20h41 minutes Ziguinchor Bignona jàpp Casamance ñoom suba 5h29 minutes la ñuy julli suba eh, Tisba 13 h ki takkusaan niki noonu 16h32 minutes timis 19h28 ge 20h39 minutes Makhtar Samb loolu mooy waxtu julli ci mboolem xew bu Sénégal yëpp ak li ñu jàll ci leneen. simlak saal nga def ma may gën ca gaaña bu la neexee gannaaw ba may nga ma mbaax ya sama doom gën ma fuuf ba gën ma ci jaamu yàlla bu la neexee tey jii ni may bona kay bon simlak saal nga def ma may gën ca gaaña bu la neexee gannaaw ba may nga ma mbaax ya sama doom gën ma fuuf ba jërëjëf Makhtar Samb ay ca kon niñ ko waxee woon rek léegi rek waaye bisu suba bi nu may def ba dootuma ko tudd heureusement ba éphéméride bi léegi vendredi la mais bu doon samedi la xam naa moomu doomar ba ci ci ci toxum yàmbaa mi la koy tàmbalee mais heureusement <laughs> vendredi le 10 la ay ca kon kon daañu ko tàmbalee suba ak jàmm euh, samedi la war a doon la 11 mai 2024 doon ñaari fan ci weeru diggi tabaski euh, ci atu mille cent quarante cinq bi si nga xam ne nag daañu koy euh, moytu bokk na ca dimanche le 12 mai 2024 doon ñetti fan ci weeru diggi tabaski moom daañu koy moytu mardi la 14 mai 2024 wara dëppoo ak juróomi fan ci weeru digg tabaski moom itam daañu koy moytu mercredi itam le 22 mai 2024 wara dëppoo ak fukki fan ak ñetti ci weeru digg tabaski daañu koy moytu samedi le 25 mai 2024 war a dëppoo ak euh, fukki fan ak juróom-benn ci weeru wolof daañu koy moytu lundi le 27 mai 2024 war a dëppoo ak fukki fan ak juróom-ñett eh, ci weeru wolof it daañu koy moytu jeudi le 30 mai 2024 war a dëppoo ak ñaar fukki fanak ak benn ci weeru diggi tabaski daañu koy moytu eh, dimanche le 2 juin 2024 war a dëppoo ak ñaar fukki fan ak ñeent eh, ci weeru diggi tabaski daañu koy moytu mardi. la 4 juin ak mercredi la 5 juin war a doon ñaar fukki fan ak juróom-benn ak ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru wolof fit daañu koy moytu lu may loolu nag vendredi la 7 juin 2024 mooy ñaar fukkeelu fan bi ak juróom-ñeent ci weeru diggi tabaski. bis boobu kon ci lañuy ñuy weeru tabaski bi bu fekkee weer bi feeñ na ci séntu bu njëkk nañu xam ne kon euh, samedi euh, le 8 euh, juin mooy doon bis bi njëkk ci bisub ci weeru tabaski. Euh, bu fee feeñul ñu xam ne dimanche la 9 juin kon mooy doon bis bi njëkk ci weeru euh, tabaski euh, ci kon mbokki loolu mooy li nga xam ne rek moo concerné bis yi nga xam ne rek daañu koy moytu bis yooyu ma lim kenn du ci tukki kenn du ci daloolu bees tàmbali ci dara fas ci ëb sëy xarafal wala watu ba ci tux yàmba yooyu yëpp daañu koy moytu ci bis yooyu nga xam ne moom laa leen jot a lu may loolu itam ñu ngi nuyu bu baax nag suñu mbokki wolof yëpp di leen ñaanal guddik jàmm pël yi ak tukulóori jëm hiri Eh, si séeréer sinafiyo ngiropo joolay kutiyom kuliyom ñoom de safuñ soosay mandi mandinkoolu saraxule xale la bambara yi ak soninka yeg mandinka yi avinitile français bonsoir anglais yi ma leen di wax good night rawatina waa Gambia waa Gambia yëpp maa ngi leen di nuyu eh, sama eh, soppe ak samay xarit yi nekk foofule ca Gambi Maxtaar yow ak Diop waaj leen ñu dem Gambi parce que waa Gambi ñi ngi ñuy xaar am na fa euh, mbokk yoo xam ne nee nañu bu ngeen dikkee Gambie bu ngeen duggee ci territoire Gambie seen dund ba ci seen losement lépp ñun ñoo koy yor te xam nga Gambie yooyu moom dañoo man gan euh, tey nag ña ñu fay waajale lu am solo euh, xam naa kon ñu ngi leen di invité maxtar ak Diop yéen ñaar dong rek doy na parce que bu bu bu nit ñi bëree rek. day day day kii maanaam euh, séddoo bi day xaw day xaw a compliqué te dama bëgg ku ne am lu bari <laughs> du dégg ci kon waa Gàmbi Kader wuu noo Kader du dem Kader dañ ko fee soxla damay ragal Alaaji Asan ne non Kader mënul dem parce que moom dogal naa ko ngant Kader dañ koo soxla ci ci ci RFM soir bi ba ca kanam xam nga moo ma kumba dagg élément yeeg yooyu loolu moo tax du man a dem mais sinon rek kon dama koy yóbbaale parce que wax dëgg yàlla amoon naa yéene mu dem mais xam naa waa RFM soir duñ ko ci bàyyi euh, kon ñu ngi waajal euh, foofale ca euh, Gambie daañu fa waajal tournée bu am solo boo xam ne. daañu ko yaatal foofule ca Gambia ci mboolem xeson yi fa nekk yëpp daañu fa euh, dem euh, bala ñoo dem daañu ko communiquer ci mboolem plateforme yëpp ak fii ci rajo bi ba mu gën a leer euh, bu ko defee waa Gambie yëpp ñu xaar ñu ci foofule ca dëkk bu mag boobule. ci kon mbokk yi di nuyu bu baax nag suñu mbokki anglais yëpp di leen wax good night italien bonasera arabi masa ul xayri sidwaay wang cag ñaaw endoy salaamat malam dellu nuyu murid yëpp di waa kër Seexul Xadim tiijaan yi di waa kër Seex Seydi Hadji Malick Sy eh, xaadir yi di waa kër Cheikh Abdoul Khadir Jeylaani laayeen yi di waa kër Seydina Limaamu Laay ñaseen yi di waa kër maam Abdoulahi Ñas canaba canaba di waa kër Cheikh maam Amari Ndaak Seck waa kër Cheikh Omar Fouti Tall salaamaaleykum suñu mbokki jàngo bi di catholique yi labbe yi archevêque yi ba ci njiitu église yi madame Guèye nuy naa la

لنا سار أحمد وخاس والموت وجعل سرمدا رسول والعود أحمد jërëjëf euh, Makhtar Samb jërëjëf it euh, mbokki auditeurs yi nga xam ne yéen a ngi ñuy déglu ci rajo Futurs Médias et ca kon pàcc bu njëkk bi euh, jeex na mu ngoog moo concerné woon rajo service bi waxtu julli yeeg bis yi nga xam ne daañu koy moytu. Euh, pàccu ñaareel bi nag euh, daañu ko tàmbali ak euh, éphéméride bi éphéméride bi nag mooy li nga xam ne moo jot a xew ci bisub tey jile ajuma bu jot xam ngeen ne daañu ci faral di ànd ak suñu naataango di suñu soppee muy Mamadou omax Ba Mamadou Omar Ba maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci seen émission yóbbalu jullit. jërëjëf oustaz maa ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax di nuyu auditeurs yóbbal jullit yépp jërëjëf auditeurs yu yóbbalu jullit yëpp ñu ngi lay fay yow itam di la ndokkeel tey rafetlu sa liggéey Mamadou Max Ba euh, tey ji la àjjuma vendredi dëppoo ak le 10 mai 2024 euh, bu ma ne la woon le 10 mai lan moo jot a xew ci àddina loo may wax ak fooy tàmbule 10 mai 1834 lañ koy tàmbalee Louis Pujol ñu installé ko comme gouverneur bu Sénégal ñu taboon ko 10 février 1834 mu wut fa Jean-Baptiste Bertrand Armand Cadéot euh, gannaaw euh, intérim bi nga xam ni oustas euh, Louis Jean Kernel defoon na ko 10 mai 1914 moo ci topp élection Blaise Diagne nekk doomu Gorée nekk itam douanier de formation ca chambre des députés bu France guléet nag Afrique africain noir siégé ca palais Bourbon ñu war ko tabaat 30 novembre 1919 11 mai 1924 22 avril 1928 1er mai 1932 ñaari at euh, gannaaw kon euh, bi mu làkkoo wala laata muy làkko 11 mai 1934 ca Vals-les-Bains ca France 10 mai 1941 Cheikh Anta Mbacké ñu gën ko xam ci Cheikh Sidi Makhtar Mbacké wuy ji boroomam nekkoon rakk ci Cheikh Ahmadou Bamba juddu Porokhane diggante 1861 ak 1863 ñu déporté woon ko ca Ségou foofee ca Soudan français autorité coloniale française defoon ko 13 octobre 1930 ak 7 septembre 1935 ñu denc ko foofee ca Darou Salaam 10 mai 1961 ñu ibbi fii ci Dakar conférence de liquidation des biens de l'ex-fédération du Mali répartition yi nag euh, mi nekkoon Euh, Sénégal ko moom 38 pour cent Soudan français nekk actuel Mali li nga xam ni nag soxal na personnel ancien état fédéral boobu dañoo décider ni fonctionnaire bu nekk nanga dellu ci réew bi nga bàyyeekoo 10 mai 1990 ñu inauguré village SOS de Louga première dame Elisabeth Diouf defoon ko ñu tabaxoon ko ci euh, foofee ca Louga mu am fukki kër kon yoo xam ni mën na dalal ay njaboot euh, maison du directeur am fa maison bi nga xam ni personnel yi fay liggéey foofu la ñu waroon nekk ak bloc administratif loolu yëpp ci capacité d'accueil buy toll ci téeméeri xale 10 mai 2019 lañ koy jeexalee ñu denc ca Touba Cheikh Béthio Thioune guide des Thiantakoun faatu woon 7 mai 2019 foofee ca Bordeaux fa nga xam ni lañ ko évacué woon gannaaw kon bi mu feebaree feebar bu euh, métti waral kon ba ñu évacué woon ko foofee ca France ngir mu faju foofu la wuy ji boromam mu faatu kon juste bi ko chambre criminelle bu tribunal bu grande instance bu Mbour condamné ci mbiru double meurtre ba am ca fief bu Médinatoul Salaam le 22 avril 2012 jërëjëf oustaz lii moo gënoon fës ci éphéméride bi tey. jërëjëf yow itam euh, Mamadou Max Ba ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant ni ngi ko waxee am na solo. Euh, ci kon yaakaar naa ni ñu ci gën a marqué rek euh, moom moo di maam Cheikh Anta Mbacke borom Daaru Salaam borom dërëm ak ngërëm ni nga ko waxee léegi. Euh, kon ni ki euh, le 10 mai ci la wàccoonub liggéey kon ñu euh, daal di koy denc kon foofale ca Daaru Salaam sëriñ Cheikh Béthio Thioune it moom itam ni nga ko waxee rek le 10 mais ci la wàccoonub liggéey ñu denc ko ca dëkk bu sell boobu la di Touba Mbacké kon bokk na ci ñaar yi nga xam ne moom a gën a marqué ci li nga xam ne moom moo di éphéméride bu tay bi beneen bi ci topp rek ñu daal di koy mën a déglu mu daal di tëj. pàcc bu ñaareel bi mu di gëstu bés bi RFM gëstu bés bi raditu billahi rabba wa bil islami diina wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam sallam nabiyyan wa rasula tuuba tuuba tuuba tuuba tuuba li saxsin bi قد كان معتزما silkul jawaahir fii axbaari sarair ci dénkaane yi ko tedd ki di borom Tuubaa njaareem liy jagal àdduna ak àllaaxira ba tey bokk na ci dénkaaneem yooyu moom Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasuul di bàyyi Cheikh Saalihu Mbàkke Sëriñ Tuubaa nee na saxiixul balxi nee na génne naa lu mat ñeenti junniy hadis génn ci lu mat ñeenti junniy baat génn ci ñeenti hadis ba ca jiitu moo di bol takk sab xol ci jigéen ndax yaa ko moom ëllëg keneen a ko moom te boo ko toppee mu tàbbal la sawara ñaareel ba mu wax ni bul takk sab xol ci alal ndax alal nee na ko moom te boo ci takkee sa xol doo ci génne ak yàlla suñu borom subhaanahu wa taala te boo ci génne wal ak suñu borom topp nga saytaane ñetteel ba mu wax ne lépp looy sikk sàkk bàyyi ko ndax xolub ab jullit day gis di baj baji ci lu lënt di daw lu xaraam di amuk dal ci lu leew ñeenteel ba mu wax ne bul wax dara li feeg demoo ba xereñe tontoom ba tey bokk na ci dénkaane ko tedd ki di borom Tuubaa njariñ di bàyyi Cheikh Saliou Mbacké Sëriñ Tuubaa nee na am na ko wax ne dëdd àdduna ñeenti yëf la dëgër loo yàlla tabaraka wa taala ci li muy digge ci mbiri àddina ak seeni ngàññi ak sellal say jëf ak jéggal ko la tooñ am na ci borom xikma yi ku ñu ma sa wax ne ko ana ci lan nga dëgërale sa jaam ci suñu borom subhaanahu wa taala mu ne ci ñeent yi rek laa ko dëgërale ñu ne ko ana ban ak ban la mu ne damaa xam ne sama wërsëg du ma raw mukk defuma ci sama xol mu koy soxlaal ma xam ne itam sama dikk muy faatu mi ngi jëkkanteeg man may njëkkanteeg moom ma xam ne itam farata yi ma war kenn mënuma cee wuutu kenn mënuma koo defal ma leen di soxlaal def ci sama itte ma xam ne itam saa borom mi ngi may gis waxtu wu nekk moo tax ma koy ruus ba tey bokk na ci dénkaane ko tedd ki di borom Touba njaarim di bàyyi Cheikh Saliou Mbacké Serigne Touba nee na Jaabir ibnu Abdullahi radiyallahu taala anhu nee na ñu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu leen di toog mukk ci kudul borom xam-xam boo xam ne da leen di woo jëlee leen ci juróom jëmee leen ci juróom ba ca njëkk moo di ku leen di jële ci sikk di leen jëmee ci yaqiin bu ñaareel ba moo di ku leen di jëlee ci ngisal jëmee leen ci ak sellal bu ñetteel ba moo di leen di jëlee ci xemem addina jëmee leen ci dëddu addina bu ñeenteel ba moo di leen di jëlee ci ak rëy jëmee leen ci ak toroxlu juróomeel ba moo di ku leen di jëlee ci ak noono jëme leen ci ak laabirante yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mas naa wax abdullahi ibnu omar radiallahu taala anhuma del wattu bu baax aw yiw ta koy gaawe ci juróom yi njëkk juróom yi sag waxambaane njëkk sag màggat sag wér njëkk sag tawat sag am njëkk sag ñàkk sag féex njëkk say soxla sag dundu njëkk sag dee ba tey bokk na ci dénkaane ko tedd ki di borom Touba Njareem di bàyyi Cheikh Saliou Mbacke Serigne Touba nee na am na borom xikma bu wax ne am na juróom ñoo xam ne waree su leen a rusa liggéeyal buurub jullit borom xam-xam wayjur gan aku fas am na ku wax ne yellu ci kenn kuy boromum xel muy dëkk ci dëkk boo xam ne amul juróom ñii buur bu am doole tëkkat bu maandu docteur bu mën a faj. jaayukaay bu ami nit dex gu doy wala ndox mu doy sayiduna aliyun ibnu abi taalib karamallahu wajahu nee na juróom yi ci juróom yi la ñuy nekk ak tedd ci ak topp yàlla tabaraka wa taala lay nekk ak torox ci mooy yàlla tabaraka wa taala ci lay nekk hikma ci biir bu xiif lay nekk ak tey akug wegeel ci taxaw guddi lay nekk am koom ci doylu lay nekk ba tey bokk na ci dénkaane yi ku tedd ki di borom Tuubaa njaareem di bàyyu Seex ku Mbàkke Sëriñ Tuubaa nee na Abu Yasid radiyallahu taala anhu nee na màndargam ku yeewu juróom la bu tuddee boppam xeeb ko bu ko bakkaaram jéggalu ko bu ko àddina waaru bu fàttalikoo alaxira békk bu fàttalikoo dee mën ndamu ibnu abbas radiallahu anhuma nee na ñi gën ci jaam ñi ñooy ñi nga xam ne juróomi jikko yi nekk na ci ñoom bu ñu rafetalee bëkk bu ñu ñaawalee jéggalu ku leen jox ñu sant la ku leen xañ ñu muñ bu ñu meree jéggale muhammad ibnu abdullahi alharawi nee na jàpp leen juróom yi ci man képp ku fenn ab taaram dem ko ay jikkoom ñaaw ay njàqareem bëri képp ku xéewali feeñ ci moom nay bëril ak cant képp ku ay njàqareem bëri nay bëril la hawla wala quwwata astaghfirullah alhasim wa atuba ilayhi ba tey bokk na ci dénkaane ku tedd ki di borom Touba njarim Serigne Touba nee na aboo lay si samar di yu nee na ku iñaan muy ko soxar ci boppam yéen ñii iñaan di xulli ba déglu leen ma ku iñaan dana faral di am juróomi mbugal njàqare lu sax dàkk te du dog musiba mu dul am mukk tiyaaba merum yàlla tabaraka wa taala mudul jeexati tàkk rawuk ak tiyaaba te dootu ko mën a dabu te jug bunti tawféex te dootul tijjeeku ak saa ci RFM jërëjëf Makhtar Samb jërëjëf mbokki auditeurs yi ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant loolu mooy eh, kon pàcc bu mujj bi ci rajo service bi ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant di leen ndokkeel eh, may nuyu bu baax nag eh, sama. soppe koo xam ne kenn la ci soppe yi wax dëgg yàlla moom itam waxtu wu nekk saa su nekk itam mu ngi euh, topp seen mission yóbbalu jullit moom ak doomam mu di euh, Maymuna Sène Maymuna Sène la euh, di sama soppe nekk fii ci Ndakaaru fële ca ñu koy gërëm bu baax di ko sant ak doomam Mariama Diagne moom itam maa koy nuyu bu baax a baax di rafetlu ñoom itam cofeel gi ñu am ci ñun ak eh, déglu gi eh, émission yi waxtu bu ne ak saa su nekk di nuyu bu baax it eh, Babacar Diakhoumpa mi nga xam ne moom itam sama fidèle auditeur la Modou Guèye ci Kër masaar moom itam ñu ngi koy gërëm bu baax di ko sant di rafetlu moom itam ànd bi muy ànd ak ñun waxtu bu ne ak saa su nekk ak mboolem auditeurs yi nga xam ne yëpp saa se tembe amatuñu benn ité bu dul toog di déglu rajo Futur Média rawatina seen émission yóbbalu jullit yéen ñi nga xam ne yéen ngi ci bande FM bi euh, fréquence de euh, modulation bi 94 point 0 la bu dee fii ci Ndakaaru ak euh, ca Thiès 102 point 5 Touba Mbacké 98 point 4 ak mboolem xeson Sénégal yëpp yéen a ngi fay déglu. rajo Futur Media Facebook RFM rajo Sénégal niki noonu itam www.icfm.sn yéen a ngi fay euh, man di déglu rajo Futur média niki ki doon itam rfm point sn waaye suñu pass tiktok waxtu wi saa setembe itam yéen a ngi déglu ak di seetaan seen émission yóbbalu jullit yéen ñi ci tiktok bi yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu euh, di rafetlu itam kóllëre gi ak euh, fidélité gi ngeen am ci ñun waxtu bu ne ak saa su nekk ci kon mbokk yi ñu daal di door nag tàmbali seen émission yóbbalu jullit mu di première émission ci waxtu wi la fii ci réew bu Sénégal Euh, xam naa nag euh, Diop tey moom damay xaw a teg sama baaraam ca euh, seet ya ma doon jàngale bu ko defee mën a ñëwaat nag ci quelque njariñ parce que nag li ma doon wax fan yi passé moom li ci ëpp sëriñ si ñoo koy utiliser waaye ñi nga xam ne xëy na seen xam-xam soriwul duñ ci mën a sori tey nag damaa fas yéene dikkaat ma teg sama baaraam fee ba dellu si waat ma bu ko defee maxtaar ma mën a jox nag njariñ ñi nga xam ne soxla nañ njariñ yu ñu gën di man di soxlawoo Euh, kon loolu ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax xam na solo euh, fi may tàmbalee tey muy laaj boo xam ne dañ koo laaja laaja laaja laaja laaj ba ba mu booy samay nopp muy bopp buy metti malheureusement bopp buy metti dafa sonal suñu mbokki soxna yi dafa sonal suñu mbokki soxna yi am na sax góor ñoo xam ne dëgg-dëgg seen feebar bopp buy metti la bopp buy metti nag dafa doon bokk ci feebar yi gën a metti nga xam ne bu la dalee dëgg-dëgg daanaka nit ki mën naa dem ba tàggoog sagoom mën naa dem ba perte mémoire am ndax bopp buy metti euh, mën na mën na dem sax ba yóbbu nit ci mën na dawal oto dóor ko fenn ndax xel ci bopp la nekk wala boog fa la ñuy xalaate des fois nga gis euh, mathématiciens yi bu ñuy réfléchir ba mu yàgg dañuy dañuy fëgg bopp bi fëgg bopp bi xam naa pour xel mi gën a yëngu bu ko defee mën a mën a circuler léegi nag comme bopp nag moom mooy cerveau doomu aadama mboolem liy doxal cëri doomu aadama yépp mi ngi ci bopp ndax xel moom mooy xalaat jox xol xol commandé cër yi moo lay xamal ni nit mën naa ñàkk lu ne gis nga ko amuti loxo di di demu yoonam di dund nga gis ko amuli tànk di dund nit ki mën naa manqué lu ne ci ay cëram di dund waaye bopp moom saa su ko nit ki manqué moom noppi naa dund ku weddi laajal buur ba nga xam ne moo ne woon boppam bi da koo sonal bopp bi daal rafetul da koo bëgg a def ko bopp or ndeysaan dégg naa ñuy nettali ne mu jëlug ginaar daal di dagg bopp bi ñu daal di koy defal bopp or rek mu daal di weq ginaar gi ginaar gi jóg de demu yoonam mu ne ah gis ngeen man maay yàlla maay maay dundal di rey buur bi yéefar la woon di daane daggal leen ma sama bopp bi def ci bopp or ñu daal di tipp bopp bi def ci bopp or waa ji tëdd fi mu tëdd rek ñu tekki ay fan yëf yi tàmbulee xeeñ ma ne ko amu ah, de yàlla agsi na dogal bi de yegsi na ku dul yàlla rek <laughs> doo yàlla yàlla rek ay yàlla yàlla mooy dundal mooy rey Firawna ba ko yonent yàlla Musaa ne ko ba ko yonent yàlla Musaa ba tey Musaa ba tey benn la warsu yi ñoo naan Musaa Hafsa di bind Musaa waaye ba tey boo ne yonent yàlla Musaa it wax nga dëgg yonent yàlla Musaa keroo bi mu demee ci Firawna Firawna ne ko Moussa ne ko man sama yàlla ji mooy yàlla ji dundal di rey Firawna ne ko loolu kay yomb na man kon yàlla la ne ko man yàlla la damay dundal di rey mu ne ko ci naka mu daal di yónnee woolu ñaari jaam ñaari jaam yoo xam dañ leen a àtte woon ba tëj leen daan ne nañ ray kenn ki ñu rey kenn ki mu ne bàyyi leen kenn ki mu dund ñu bàyyi ko mu dund mu ne ko waaw naa kii dundal naa kii Moussa ne ko waaw ba tey daan ne ko sama yàlla ji nag mooy kii jële jant bi penk di ko yóbbu soow yow nag bu dee yàlla nga jëli ko soow mu dem penku dégg naa Firawna daal ne xiim moom wax jooju ba tey ji sëqatu ja moo tax yàlla moom boo gisee ku koy diir mbagg rek moom xaar ko fa gàtt rek dégg naa fa nii ci internet bi benn waay bu mën a kàcc waa jëlee naan yàlla yàlla njaay la sant waaw waa ju mën a fen loolu ku ko wax ne leen ko day fen lool jëru sax maslaa ak koo mën a doon koo mën a doon noo mën a tudd noo mën a sant foo mën a dëkk ku la mën a jur foo mën a bokk mën a xam koo mën a doon daal ci gàttal mu taxaw naan yàlla njaay la sant ak yàlla jóob la sant yàlla mbàkke la sant ak yàlla si la sant loolu ku la ko wax nee ko da ngay fen nee ko da ngay yàlla santul neen yàlla du nit yàlla du mbindeef yàlla du maami kenn yàlla du magi kenn yàlla du xaritu kenn yàlla du sëriñu kenn yàlla dañoo moom ñuy ay jaamam diggante moom ak la moom lañ seq ak moom dañoo moom ñun ñuy ay jaamam mu moom ñu sañ jundal dundal sañ ñoo rey feebar sañ ñoo wéral kooku mooy yàlla képp kuy dund di dee doo yàlla képp ku amu sant doo yàlla képp ku am ndey baay doo yàlla képp ku ñu mas a teg ba doo yàlla képp kuy lekk di naan doo yàlla képp ku ñuy joxañ ne sa baraba ngi nii doo yàlla yàlla yàlla yàllaa fi nekkoon ba fi dara nekkagul bi fi lépp nekkee di yàllaa fi ne bu fi lépp noppee nekkit yàllaa fi ne moo tax loolu na ngeen ko bàyyi xel bañ di foyee suñu boroom waaw fan yii moom ak yónnente lañ doon foyee gis naa yàmbar mu toog di jooy naan des fois sax jooy damay jàpp ndax sama jëmm ji xeebu ji yàlla di yàlla xool ma di ma def ab yónnente ma yàlla dana jël ko xeebu di ko def ab yónnente ma ko ba nga nee sama jëmm ji xeebu ji rek nga waye di waaw nee Jóob la sant waaw lay ndeysaan muy yónnente yàlla Jóob mu lu lay caaxaan la beneen waaye moom jóge fee ñëw ne man man yàlla njaay la sant te fekk moom njaay la sant moom boppam lay wax de waaw yàlla njaay la sant kana ñun ñëpp taalibe yëpp naa ko yow ah. a taalibe dee saa ñoom xam nañ ne dangay ngay fen yow it xam nga ni taalibe yi naan la yow dañuy fen dafa am benn waay bala may dugg ci ci secret yi benn waay bu mas a bokk ak benn benn borom sant sant wu ñu xam fii Sénégal ko am num sant daal mooy sant yi ñuy màggal waa ji dafa bokk ak waa ji daara dafa bokk ak sëriñ bi daara ñu bokk jàngandoo bokk doon yalwaan yi bokk doon duggandoo ci ay nooxóor bokkandoo di def lu ne nga xam ne daal moom yëfi nit yëpp bokkandoo nañ ko def léegi nag biñ jógee ci daara ji ñu toog lu yàgg yàgg yàgg yàgg gisewuñ maa ngi nuyu waa Touba waa Touba ñu ngi ñuy déglu ca RFM Mbacké 98 point 4 kon képp ku nekk ci dëkk bu sell booba di Touba diggante Touba ak Mbacké ba Sadio di dëkku jëmm ndoom bu Sadio Daaru Xuddoos ak Daaru Mina nag eh, Touba Ilipor waa Ilipor maa ngi leen di nuyu Eh, kon ñëpp maa ngi leen di nuyu waatubaa Touba yëpp tey moom damay beral émission bi waatubaa Touba émission bi waa ko moom wallaay ndeysaan di nuyu waa RFM Mbacke yëpp ngoor soo sa fa nekk di Papa Balla Gueye ak xale yam fa nekkandool ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu eh, ñoom Moustapha Dieng eh, léegi waa ji maa ngi woon fan waay Diop daa mel damaa jëm makkar xel mi day dem <laughs> fu ma nekkoon waaye ah boroom dégguma de ah waa boroom sant wi waaw wax nga dëgg waaw waa sëriñ ba demoon ca daara ja nekkoon fa ak eh, benn mbokkum daara léegi nag biñ jógee ci daara ji waa ji gëj gis sëriñ bi sëriñ bi gëj a gis waaye ñu dem ay at yu bari gisante wuñ léegi benn suur waa ji woo sëriñ bi daan ne ko ah, yow kat sëñ bi sama sëriñ nga woon ñu bokkoon nekk daara wax dëgg yàlla bokk nañ def lu ne dama laa bëggoon a siyaare sëriñ bi sëriñ bi jox ko rendez bi mu njëkk am mooy mu ñëw fekk sëriñ bi mu toog mbooloo wër ko di sikkar mu ñëw nuyu sëriñ bi daal di toog daal ne ah sama waa de daa mel ne léegi mu àddina wuy si na ko waaye taalibe li ñu sikkar mooy laa ilaa illa laa sëriñ diw yàlla nga sëriñ bi toog di siñ rek mu jékki-jékki rek waa ji muñ ko mënatu ko muñ mu sëgg ne ko ah, saay kañ nga fi doon yàlla mu ne ko non man mi ñuy waxal naan yàlla nga xam naa ne dañuy fen ñoom ñi naan ma yàlla nga xam nañ ne dañuy fet ne ko kon kay ouyee problème lan mooy problème bi man miñ naan yàlla nga xam naa ne ñoom dañuy fen ñoom ñi naan ma yàlla nga itam xam naa ne xam nañ ne ñoom ci seen bopp xam nañ ne dañuy fen moo ne kon lan mooy problème bi loolu loolay dëgg waaw moo tax buñ naan la yàlla nga ngay xuggali ko nangam waaye dangaa judd bis day ñëw nga dee yàlla na yeex waaw moo tax yooyu nañ ci bàyyi xel te bañ di ko fooyee bu ñu topp rek mbambax meek riir meek réseaux sociaux yi am na kilifa goo xam ne day toog di wax loo xam ne bëgg ko ko TikTok doo nga tax mu toog di ko wax maanaam bëgg a def bës buñ demee nag ba sëriñ si ci jàkka ji ak daara yi ñëw ci penc mi di xëccoo bës bi ak influenceurs yeeg xaw ma yu kenn xamul di ko xëccoog ñoom mag di ñoom mag di mag di mag di youtubeur dem ba di ko xëccoog ñoom di ko xëccoog ñoom ñoom ñoom ñoom xaw ma xaw ma lan duudu fee dee vidéo xaw ma ñu dem ba sëriñ si ñëw di xëccoog ñoom bës bi wax dëgg yàlla ñoom wàcc wàcc nañu seen ànd wàcc nañu seen ànd wàcc nañu seen ànd waaw moo tax sëriñ si nañu yem ci la nga xam ne loolu lañ war a yem waaye wax wax ju rëy joo xam ne yow bi nga koy wax gëmoo li ngay xaay bëgg nga bu noppee ñu dagg ko dugal mu def tour de web bu ko defee nit ñi di la coow nga gën a siiw te loolu mbugalum yàlla rek nga ciy jëlee ak gàttu fan parce que maa yàlla moom ku ko wax nga dee ku koy wax lee nga dee parce que yàlla da lay xamal ne doo moom ndax man du ma dee waaw moo tax loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax am na solo ay ci kon 23 h moom mooy soog a fi may tàmbalee tey sama waxtaan mooy luy faj ba buy metti téere bopp joxe woon naa ko fi ay yoon nag waaye demande sociale la ngir ñu dellu si ci lii téere bopp buy metti la dinaa leen jox beneen boo xam ne itam ku mënta takk téere te boppam di metti mën na ko def booba itam boo efficace la lii may bëgg a wax nag téere la boo xam ne xulamaa yi muy boroom xam-xam yi fonkoon nañu ko lool ngir barkeel gu ñu gis ci moom ak xettali goo xam ne yàgg na koo xettali ay jullit moom lii may bëgg a wax ay jullit yoo xam ne bopp yu metti dafa doonoon seen tawat sonaloon leen lool saa soo xamaana bis biñ ko war a bind dikk na dañu daan farlu lool bind ci lu bari ndax li tax mooy dafa doon téere boo xam ne Euh, bii nag xam naa ngeen noté ko xëy na bokk rek bi ma bëggoon a joxe waaye ngeen noté bii rek bu waxtu wa yegsee ngeen mën koo bind ndax benn bis lañ ko mën a bind ci at mi at mi 365 jours la bu dee ci atum tubaab bu dee ci wolof da koy yées bu dee ci atum jullit da koy yées léegi nag kon bis biñ ko mën a bind ci at mi mooy ajjuma ji mujj ci weeru koor ci la ñu koy bind kon nag enregistré leen vidéo bii ngeen denc ko bu ngeen demee ba weeru koor sori bañ àgg ca fukki fan yu mujj ya ngeen branché ko mu tasaaroo bu ko defee mbokk yi man koo fàttaliku mën a daw bindi ko ndax loolu am na solo ngeen bàyyi ca xel ndax dafay faj bopp buy metti définitivement lu metti metti da koy faj kon ngeen bàyyi ko xel te bañ koo fàtti bu bu boobaa boo ca yeggee bu dee aw yow ab bind kan ga na nga ci bind sa kem kàttan denc ko bu ko defee du ñàkk nga mën ci dimbali sa mbokkum jullit muy tawatu bopp buy metti amaana nag suñu jamono jii bu fekkee suñ mbokki góor ñi bëgg ak service tax na moom téere bopp xalaatuñ koo takk fi mu toll nii sax góor gu fi takk téere bopp boo moytuwul ñu tam la waaw ñu ne saa yi kat daa day kii wala nangam ak nangam loolu moom bàyyi leen ci xel waaye dara nekku ci. waaw xanaa kon jigéen ñi kon ñoom mën nañ koo takk musóoru teg ca wala ñu muuru teg ca léegi nag téere bi lii képp la da ngay bind bismillahi rahmaani rahim nga teg ca alam tara ila rabbika kayfa madda zilla walaw shaa la jahalahu saakidan dumma jahalna shamsa alayhi dalilan dumma xabbadnaahu ilayna xabdan yasiran loolu mooy loolu mooy téere bi kon ngeen bàyyi ci xel moo tàmbulee ci alam tara ila rabbika kayfa la walaw shaa la jahalahu daakinan summa jahalna samsa alayhi dalilan summa xabalnaahu ilayna xabdan yasiran léegi nag yow mi bëgg a xam fu mu ne dangay dem ca sóoratu furxaan dangay dem ca sóoratu furxaan sóoratu furxaan ngay dem ca aaya 44 waaw sóoratu furxaan aaya 44 foofa la alam tara ila rabbika kayfa madasi la nekk sóoratu furxaan aaya 44 kon buñ ca yeggee rek bu ko defee ngeen mën a dugalaat vidéo yi man koo branché bu ko defee mbokk yépp man cee jot ndax loolu dina tax njariñ li gën a yaatu kon loolu itam ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax xam na solo mu beneen bi topp mooy kon ba tey luy faj ba buy metti lii moom manis na koo bind ci bis bu ne bis bu la neex mën nga koo bind maxtaar bu fekkee nit ki bopp buy metti daf koo sonal na bind lu sóoratul xadri sóoratul xadri sóoratul xadri moo tàmbulee ca inna anzalnaahu fii laylatil xadri wa ma adreeka maa laylatul xadri laylatul xadri xayrun minal alfi shahrin tanazzalul malaikatu wa ruuhu fiiha bi isni rabbihim min kulli amrin salaamun hiya hatta matlahil fajri loolu mooy sorotul xadri léegi nag boo koy bind da koy bindee big feutre wala nga binde ko daa boo ko ci binde baax na boo ko bindee ci àlliwoo baax na boo ko bindee ci ndab lu mel ne palaat baax na wala bool boo ko bindee itam ci këyit ci feuille balance ba tey baax na léegi nag boo noppee mbind bi nanga koy raxas nga raxase ko sa bopp maanaam sa bopp biy metti léegi nag boo koy raxas dangay ngay téen waaye bul sëgg bul sëgg say bët féete suuf waaye da ngay téen say bët féete ko bu ko defee ñu sotti ko ci sa jë raxase ko sa bopp ba bopp bi lépp tooy bu ko defee nga téen ab diir ba ndox mi wàcc nga siggi dem bu soobee yàlla bopp buy metti loolu da koy faj definitivement bu ci yàlla àndee ngeen bàyyi ko xel bu baax a baax na solo beneen bi ci topp muy moccuk bopp buy metti ba tey ma jeexale boobu kon ci bopp buy metti euh, li nga xam ne moom la ñuy mocce bopp buy metti moom itam téere la bu barkeel ci saafara bopp buy metti moom it ni la ci baaxee lu bopp bi metti metti metti metti metti lu mu doy doy waar lii moom boo ko moccee bopp buy metti ci saasa ci saasa lay sedd dafay metti ci dafay sedd ci saasa kon loolu itam ngeen bàyyi ko xel kilifa yu baax yu tedd yu mag yu sell yi bëri bëriwaana luñ ko daan ñaanale borom bopp buy metti ndax dafa di ñaan gu barkeel nañu ko daa defee nag mooy nii may bëgg a wax ngeen déglu ko bu baax attentivement nii lañ koy defee moo di ku boppam di metti dafay digg dafay dikk sëgg fi sa kanam maanaam dafay ñëw sëgg fi sa kanam jatta aw loosam ay bëtam féete suuf nga dar sa ñaari loxo ca bopp ba jàng ñaan gi may bëgg a wax ñetti yoon walla juróom ñaari yoon ko ñetti yoon wala juróom yoon moom nga koy jàng nga tufli ko ko boo ko ko tuflee rek ci saasa bopp bi day sedd ñaan gi lan la mi ngi nii fii la tàmbalee jàpp leen ko bu baax a baax bismillahi xayri asmaillahi rabbil ardi wassamaa'i bismillahil lazi ismuhu barakatun wa bismillahi ladi biyaddihis shifaau bismillahil ladi laa yadurru mahasmihi shay'un fi lardi wala fi samaai wa huwas samihul halimu yaakaar naa leer na ma baamtuwaat ko da ngay jël sa ñaari loxo nga teg ko ci bopp bi nga dare ko bopp bi loxo ndeyjoor bi ca wetu càmmooñam sa loxo càmmooñ ci wetu ndeyjooram parce que day jàkkaarloo ak yow bu ko defee sëgg nga jàng ñaan gi ñetti yoon wala juróom-ñaari yoon kon ma baamtu ko da ngay wax bismillahi xayri asmaa'i laahi ma baamtuwaat ko bàyyi leen ma tàmbuliwaat da nga naan bismillahi xayri asmaillahi rabbil ardi wassamaa'i bismillahil lazi ismuhu barakatun wa shifaa'un bismillahil lazi biyaddihis shifaa'u bismillahil lazi laa yadurru mahasmihi shay'un fi l wala fi lsamaai wa huwa samihu lalimu allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallim loolu rekk la kon mbokk yi ngeen bàyyi ci xel bu baax xam na solo beneen bi ci topp mooy luy faj biir buy metti waaw kay yéen mbokk yi nga xam ne biir buy metti daf leen a sonal dem nga diagnostiqué nañ ko gisuñu dara dem nga pharmacie dem nga clinique dem nga xaw ma centre de santé la ak de santé fu ne yow lépp lu aju ci santé rek dem nga fa naan nga garab gu nekk waaye biir buy metti bi mënta faju léegi lii may bëgg a wax boo ko defee dina faj biir buy metti dana ko faj bu ci yàlla àndee niki saar wi ñuy wax sóoratu charhi sóoratu charhi mooy wan saar moo tàmbulee ca bismillahi rahmaani rahim alam nasra laka sadraka wa waddaxnaa hanka wisraka alladi anqada dahraka wa rafaxnaa laka dikraka fa inna mahal husri yusran inna mahal husri yusran fa isaa faraxta wa ilaa rabbika farxëb loolu mooy alam nasara yaakaar naa leer na waaw bu ngeen gisee may bëgg di wax saar wi ba mu lee ba mu ba mu ba mu àgg mooy dama bëgg ki nga xam ne mën naa am occasion jàngewaale saar woowa nga xam ne bu ko enregistré di ko déglu dina leer ci moom leer goo xam ne dina ko mën a déglu baat par baat bu ko dee déglu lu yàgg di ànd ak moom bu yàggee mu mokkal saar woowa loolu laa ci jublu moo tax ma di ko jàngaale ndax xam naa ne ñi xam ñi xam alam nasara moom xam nañ ko du jariñu ñu koy jàng waaye ñi ko xamul moo tax ma di ko jàng léegi nag boo bindee alam nasara ba mu àgg boo ko bindee ba mu mat nañ ko raxase ndoxum sam-sam wala ndoxum taw ndoxum sam-sam wala ndoxum taw ñaar boo ci am baax na boo ko ko raxasee ba mu àgg nga jox ko ki di metti mu naan ko maanaam bu ko naanee fii biir buy metti bi dana arrêté bépp feebar bu nekkoon ci biiram ba waral ko biir buy metti bu ci yàlla àndee incha allahu taala feebar boobu dina tàggale ko ak moom kon loolu itam ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax am na solo euh, beneen bi ci topp nag mbokk yi lu am solo lu tasaaroo ci jamono ji lool loo xam ne jóob bariwaana waa ko gaare moom moo la gaare muy làmmiñ ak bët sëriñ Fallou Mbacké nee na boo dee dox ba nit ñëw taseeg ñu ne ne ah saa yaa ngi dem de nee na nanga taxaw ne ko taxaw naa ba pare soog a dem parce que dafa ñu tàmm lu bon dafa ñoo xam ne dañoo mën a catu nit ñoom sax ñoo ko ci jublu dañ ñoo ne Makhtar Samb ah saa yi léegi yaa ngi dem de ay léegi nangam de saay saay gis nga saay jooju bu yàggee saay saay lay doon saa yaa ngi dem de saa yow moom dem nga saa yi moom léegi am nga xaalis saa moom yaa ngi ci kaw saa moom gisatooñu saa moom nangam saa yi saa bu ko defee nag yow nga daal ne kekk say mbir taxaw am na ñoo xam ne da nga leen koy wax ñuy siiñ waaw mais xamuñu li nga leen wax xamuñu li nga leen wax parce que dafa am ñoo xam ne seen làmmiñ dafa aay lu ñu tudd mu yàqu waaw waaw na ñoo xam ne lu ñu xool mu yàqu gis nga maxtaar seen table mixage bii nii ci rajo bi xam nga yéen a ngi fi liggéey yéen technicien yëpp muy dox gis nga bis bu ngeen amoon technicien borom bët bu aay buy ñëw buy toog buy xool piste yi lépp di lakk waaw bu xoolee machine bi machine bi fay parce que dafa am ñoo xam ne bët bu aay lañu am waaw yàlla nañ ci yàlla musal waaw ñooñu waruñoo xool sax mbay juuf waaw parce que buñ ko xoolee day gën a gàtt te loolu arrasé wuñu ah. ah mbay dafa dafa dafa defarukat mbay sañse na de ah tey sama xarit moo war a def si eh, pàcc bu njëkk bi ci RFM Nuit Sampol nduur ok léegi nag dama koy bàyyi mu ñëw tënkal leen bu ko defee ma dem xooli sañse mbay juuf mais te ñëwaat léegi nag Sampol nduur tënkal leen xibaar yi ci kàllaamay farañse lay doon mu di tubaab mooy pàcc bu njëkk bi ci RFM Nuit bu noppee nag ma daal di toll wéyal fi ma tolloon ci musluwaayu gémmiñ ak cat nan lañuy def ba mucc ci gémmiñ ak bët ak yu ni mel ñu dem te ñëw. rythmé à Liberté 6 le bulletin Jean-Paul Dourmatarson. Dès le début de notre magistère, nous avions baissé les prix des denrées de première nécessité. Dr Amadou Mamdiop qui a rencontré ses militants à Richard Toll, le président de l'Assemblée nationale, a aussi fait savoir qu'en termes de leadership, l'ancien chef d'État Macky est difficile à remplacer. Le maire de Richard Toll annonce que milliards seront injectés pour régler la problématique de l'eau. Il est avec bu fekkoon bilan moo war a fal suñu candidat kese Si ce n'était que du bon bilan aujourd'hui, c'est notre candidat qui allait griller ce pays, mais tel n'est pas le cas. C'est pourquoi je me ressentais de la pitié pour ce nouveau régime. Lorsque le président Macky était élu à la du pays pour son premier mandat, en 20 jours, nous avions diminué les denrées alimentaires. Et cela grâce à son leadership et l'homme d'État qu'il est, en il est irremplaçable. Il aussi que je clarifie certaines choses Hamour, nous allons construire une château d'eau de 50 km linéaires pour extension, en plus de l'augmentation du débit de l'usine qui est déjà sur place et qui verra sa capacité passer de 4500 cubes à plus de mètres cubes. On est dans l'opposition au niveau de l'exécutif, mais ici à Richard Toll et dans le département de Dagana, nous avons le pouvoir, vu que nous sommes à la tête de l'Assemblée nationale. C'est nous qui dirigeons. Et je vous rassure, même si plus de l'APR, nous serons là, debout, de En plus bref, cher Ahmed Tiganba, remplacé à la tête de la Banque agricole par Fatma Fall, elle était jusque-là son adjointe, la BNDE, aussi change de patron. Abdoulaye Nian a été remplacé par Mamadou Faye, ancien directeur général adjoint à la Banque islamique du Sénégal, un ancien de l'UGB de Saint-Louis, des décisions prises par les conseils d'administration. Cher Bambadier est revenu sur l'incident d'avant-hier. Un vol de la compagnie Transair était sorti de sa piste. Le nouveau directeur dit accorder une importance capitale à la vigilance parce qu'il y va de la sécurité des passagers. Il est avec Neymatiyan. L'incident L'incident survenu avant-hier nous interpelle tous. Cela mérite qu'on réfléchisse et prenne très au sérieux la lourde responsabilité que nous avons de protéger les Sénégalais et au-delà même tous les passagers de l'aéroport. Nous devons travailler main dans la main pour mettre à l'aise les passagers parce que l'aéroport que nous avons a une dimension internationale et il a une euh, bonne réputation. Donc à nous de préserver cette image. En quoi faisant, la l'accompagnement des voyageurs. Le président Bassirou Diomaye Faye tient à une gestion de qualité de l'AIBD, donc soyons coopératifs pour répondre aux attentes des Sénégalais avec un service de qualité. Propos de Cheikh Bombadjé en marge de la passation de service à l'aéroport international Blaise La cérémonie s'est déroulée aujourd'hui, c'était hier. Le directeur sortant Abdoulaye Dieye a fait l'état des lieux à son successeur des performances considérables que Cher Bambadiaye promet d'augmenter, compte rendu Neymatidjan. Installé le 19 octobre 2022, Abdoulaye Dieye quitte officiellement la direction générale de international Blaise Diagne ce 10 mai. Il dit partir à la tête haute. La mise en exploitation de de l'aéroport de Saint-Louis, la certification de l'aéroport de Cap Skirring sont des performances exceptionnelles qui ont au Sénégal d'obtenir une note de 86% de taux de conformité contre 46% en 2019. Son successeur à qui il a passé le témoin rassure quant à la bonne gestion de la boîte. Cheikh Bambadji compte privilégier la transparence. Nous allons ensemble travailler pour avoir une situation de référence qui va nous permettre chacun de comprendre quel est l'état réel de AIBD SA à tous les niveaux, techniques, institutionnels, financiers, ressources humaines, avec beaucoup de sérieux. Tout au début de la cérémonie de passation de service, un film a été présentant les réalisations et projets à AIBD. Cher Bambadjei reconnaît les efforts consentis par le régime sortant. Je vois, monsieur le directeur général, que beaucoup de choses ont été faites. Il y a l'école, il y a l'AMRO, il y a il y a, C'est extrêmement important, mais en somme, pour vous et moi, ce n'est que le début. C'est la situation de référence. Une cérémonie de passation de service en mode fast Le nouveau directeur général de AIBD, Cher Bambadjei, accompagné d'une petite délégation, est sorti avec son prédécesseur mais dans la main pour la prière du vendredi. Ndeye Mathi Dieng, Mbour, Radio Futur Média. Fadilou Keïta, installé nouveau patron de la Caisse des dépôts et consignations, Cheikh Issa Sall lui a passé le témoin sans la présence des journalistes. Papa Lénian a pris fonction à la tête de la RTS hier vendredi. Le nouveau directeur général veut réconcilier la RTS et le peuple sénégalais. Il compte apporter la rupture dans la gestion du personnel des finances, mais aussi du contenu. Il ajoute que la RTS sera accessible plus que jamais au pouvoir et à l'opposition. La passation de service a eu lieu hier après-midi en présence d'Abdourahman Diallo. Pape Alignan s'adresse à ses nouveaux collaborateurs de la RTS. Dans l'exercice de cette profession, nous avons eu Ce que nous avons appris des deux côtés de la rive nous a été et nous sera aussi utile. Avant de décider, ici à la RTS, il faut écouter, laisser s'exprimer les sensibilités diverses, favoriser l'esprit de groupe et rester solidaire. Le nouveau directeur général va incarner la rupture. Je suis conscient de l'importance de la RTS dans le paysage médiatique sénégalais et de son rôle crucial dans la promotion de l'information de la diversité culturelle et du débat démocratique. Rien n'est simple, mais l'essentiel est dans l'ambition. L'ambition de refléter le pluralisme et la riche diversité de notre pays, et cela sur tous les plans. Politique, j'insiste, politique, culturelle, sociale. il compte sur le personnel de la RTS pour atteindre les objectifs assignés. Comptez sur moi pour avoir la liberté d'exprimer tout votre talent. En préservant les acquis, nous relèverons aussi les défis de l'innovation. Ensemble, nous ouvrons une nouvelle page de collaboration, plus proche, pour porter haut le flambeau du service public de l'information. Les travailleurs de la RTS aussi se réjouissent de la nomination de Papa Lénian à la tête de la société. laata ñu ñuy fal ak ba ñuy yegg si fii sax di jël passation de service defe naa ne CV yi bari na yi ma ci jot ci diggante bi. et cette récrimination des habitants de Sébi Péage qui se disent agressés et ils réclament donc euh, une voie, une passerelle qui pourra leur permettre donc euh, de ne pas faire le contournement qu'ils ont l'habitude d'emprunter chaque jour à Diouf Gagne. Les habitants de Sibipéage en veulent à l'APIX. Ils ont de réelles difficultés pour accéder à la route nationale et aux autres localités de la commune. En brassard rouge, ils ont exigé une passerelle pour leur mobilité. Serigne Mbacké porte-parole du collectif. Le problème crucial, c'est que Sébigare doit avoir un arrêt. Parce que s'il n'y a pas d'arrêt et la passerelle qui l'accompagne, les populations seront désormais prisonniers dans leur propre maison. cinquante mille âmes. En réalité, si cette situation perdure, nous aurons même de la déperdition scolaire parce que les enfants de 3, 6 ne pourront plus faire autant de kilomètres pour accéder à leur établissement. C'est véritablement un problème humain. Il appartient à l'autorité de s'approprier son propre slogan Dioub Jubal Jubanti et de comprendre qu'ici, à Sébikotane, il y a quelque chose à redresser. Les manifestants craignent aussi des inondations. Les voies forcément va poser des problèmes d'inondation à Sébikotat et ruinera évidemment les efforts des populations, efforts consentis pendant des dizaines d'années. Les habitants de Sébipéage qui sont à leur deuxième sortie attendent des nouvelles autorités, des réponses urgentes. RFM Rifisque, et nous prenons l'avion direction la France, notamment au Parc des Princes. Kylian Mbappé, la star de l'équipe de France, a annoncé donc son départ de l'équipe. en vue de la prochaine euh, saison. Il s'est dit très très très ému et très fier d'avoir passé autant d'années dans le plus grand club euh, de France et un des plus grands clubs au monde selon ses propos. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. C'est tout pour ce bulletin. C'était Jean-Paul Nour, c'était Matar Sombre. Je vous laisse en compagnie de Oustas Mamormbake et Yobulu Gulit à 1 heure. Nangoka, un flash en Wolof. Merci infiniment de votre fidélité renouvelée à la radio de toute l'actualité. Devant le grand jury d'RFM ce dimanche, Moustapha Diakhaté, ancien député. Il est l'invité de Babacar Fall. Plusieurs sujets les premières semaines de gouvernance de Bassirou Diomaye Faye, les nouvelles nominations à des postes clés, la cohabitation avec Beno, l'avenir de Macky Sall, d'Amadouba et de la pr la gestion du foncier, la démocratie, la justice, les urgences sociales, l'économie, l'international. Participez à l'émission en posant vos questions sur les réseaux sociaux avec le hashtag Grand Jury RFM. Moustapha Diakhaté face à Babacar Fall, le grand jury dimanche 11 h sur RFM. يقيني إلى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 ñu leen di dig daje ajuma ak jàmm yaqini ilal jannati ma يقيني إلى الجنات ما ليس يخمد رسول كريم بيتنا سار أحمد وخاس والموت وجعل سرمدا رسول سفير في البراء المختار لا خلق مثله لا قد خدت والعود أحمد أتاني بسم الله جمت هبات بشير عبيد والأزاق jërëjëf euh, Amady Ndiaye mi nga xam ne moo wóotu léegi Makhtar Samb ci wàllu xarale gi jërëjëf it euh, Sampol Ndour mi nga xam ne moo fi jóge léegi ci pàcc bu njëkk bi nga xam ne moom la doon amal ci RFM Niwi maa ngi tolloon ci kon doon bëgg a jàngale loo xam ne dafay musle ci gémmiñ li ñuy wax xool mbir mu yàqu walla nga tudd mbir mu yàqu li may bëgg a wax ci loolu lay musle loolu nag doonoon na bu njëkk ci réewi xaraab yi maanaam lu fi yàgg la bu ñu jàpp ne rek aada yi Sénégal la loolu itam bëgguma nit ñi attardé wu ci làmmiñ bu aay bët bu aay bëgguma nit ñi jàpp ne aada yi Sénégal ya naka jekk dafa amoon ci réewi arab yi te booba Sénégal sosoogul ca réewi arab yu njëkk ya yu njëkk yaa njëkk njëkk ca yónnente yu njëkk ya sax dafay amoon nga xam ne dafa amoon ci ñoom ñoo xam ne yàlla da koo def ci ñoom ñooñu nag dañ leen daan ràññee ñu doon ñu ñu xam waaye ñoom itam lu ñu xool ba mu yàqu wala ñu tudd ko mu yàqu dafay fekk ñu jublu ko ca ndax xeetu njabar wu nekk ci ñoom la maanaam loolu xeetu tooke la joo xam ne dafay nekk ci doomu aadama dem nañ ba vingt et tubaab trouvé trouvé feebar boo xam ne ëmmadi boo jàkkaarloo ak nit ki boo waxee mën nga koo wàll coronavirus bi fi jaaroon nu mu demee cas moom moo doon lan mooy mën ngaa jàkkaarloo nit ki nga wax wàll ko feebar bi wala ngeen jonjoo wala ngeen toog dende rek nga wàllu ko ko waaw yooyu yëpp da doon am noonu nag dafa jiitu ci wàllu diine naka jekk fi yàggu la ñoo xam ne dañuy xool mbir mu yàqu wala ñu tudd ko mu yàqu waaye li ma wax léegi day fekk ñu jublu ko ca ndax loolu tooke ju nekk ci ñoom la dafa amoon arab buñ doon wax abi abdillahi albaaji ca jamono yu njëkk ya déglu leen bu baax li ma leen di wax abi abdillahi albaaji ko amoon xam-xam la moom abi abdillahi mii ma wax dafa mas di tukki ànd nit nit ñu bëree bëree bëree bëri ñu ànd ak moom ñu jiital seeni gëléem ya am ca gëléem goo xam ne daf ca ràññi ko lool ndax la tax mu ràññi mooy gëléem gi dafa rafet dafa taaru woon lool fekk nag ca mbooloo ma mbooloo ma nga xam ne ñoo ànd di tukki ànd ak abi abdillahi albaaji mi ma wax léegi am na ci koo xam ne mi ngi bokk ci ñooñi nga xam ne lépp luñ xool day yàqu waaye lépp luñ tudd itam day yàqu am na ko wax ci abi abdillahi ne ko yaa aba abdillahi sa gëléem gii daal taaram bi tax na ragal naa ci sunu àndandoo bii di diw ragal naa ko ci lool waaw ragal naa ko ci lool mu lor sa gëléem gii ne ko nag da koo waroon a wutal gàllaajug bët balañu ko balañu ko ñu koo sànq abi abdillahi ne ko laysa lahu ala jamali qudratun ne ko mënalul dara sama gëléem gi fa balaxa kalaamuhu haa ina boroom bët ba daldi ñëw daal di jot ca wax ja maanaam li abi abdillahi wax ni mënalul dara sama gëléem gi borom bët ba aay ba daal ciy jot daal jot ce wax ja fantasara xaflatan min abi abdillahi waaja it daal di ñëw ba ba agsi ñëw ba agsi daal di puus ba yegsi ñu daal wax abu abdullahi ne ko bàyyi ko xel bàyyi ko xel waaye waaja daal di ñëw ba agsi summa jaa ilal jamali wa nasara ilayhi topp mu di ñëw ca gëléem ga xool ko ngir jublu ca lor ko fattarabal jamalu lisaahatihi wa saxata allahu akbar gëléem nga daal ne jal jal jal jal ni jirib ci suuf daal di daanu fa saasa fala maara a abu abdullahi dalika bi nga xamee ne abdu abu abdullahi gis na loolu baadara xaailan mu daldi di gaaw daal wax ni bismillahi habsun haabisun wajarun baa'isun wa shihaabun xaabisun raddatu haynal haini alayhi wahala ahabbi naasi ilayhi farjihil basara hël taree min futurin sumarjihil basara karratayni yanxalibi ilaykal basaru xaasi an wa huwa xasiirun bët ba daal di dañ ci saasa fa xaamal jamalu ka annahu lam yakun ila bihi bihi shay'un gëléem ga daal di ne jóg daal di taxaw mel ne dara masu koo jot wax nañu ne lépp loo xam ne ku ko xool xoolaat ko wala foo ko xoole man nga koo tudd ci sa làmmiñ moo xam ci sa bopp la nekk wala ci sa alal ju rafet wala sa doom ju rafet wala sa jur wala sa oto wala sa soxna wala sa jëf ju kéemaane joo xam ne ñëpp a koy yéem nee nañu yii yëpp lu la ci yàlla jox rek soo ko léemoo bu soobee suñu borom dara du ko mën a yàq ci àddina du bët bu aay du làmmiñ bu aay du cat dara waaye nag mbokk yi la ca gën a yéeme te gën caa yéeme mooy nit ki def ñett yi bu ko defee moom moom na xam ne belende na gis nga oto yi américain yooyu nga xam ne dañ koy belende waxuma la boo ci dóoree bal wala nga dóor ci kanu du du du du du maanaam oto bi du tàkk waaye maanaam foo xam ne teg nañ fa miin sax bu ko oto bi jéggee du tàkk maanaam oto bi dafay dafay dafay buriyee lépp loo xam ne lu ko jege la ci xeetu miin wala koo xam dafa naroon a tiire boo tiiree du tàkk koo xam ne bind na ko sangoo bind ko naan bind ko takk ba pare di ko jàng bu soobee suñu borom moom yow belee ne sa bopp cent pour cent cent pour cent laa wax waaw bu soobee yàlla dara du man ci yow dara loolu ngeen bay ko xel waaw naka noonu itam kon ngeen xam ne kon borom xam-xam yi fonkoon nañ ko te nii la ko waxee léegi kon ma waan ñaan gi bu la neexee nga di ko ñaanee nga di ko léemoo nga di ko wax dee ko wax bu la neexee yam ca bu la neexee nga bind ko sangoo bind ko takk wala bind ko naan bu soobee suñu borom di nga mucc ci làmmiñ wu aay ak bët bu aay da nga mucc ci lépp luy xeetu cat waaw léegi na kon ma baamtuwaat ko danga naan bismillahi habsun haabisun wajarun baa'isun wa shihaabun xaabisun raddattu haynal haa'ini alayhi wa ala ilayhi farjihil basara hëltaree min futurin sumarjihil basara karratayni yanxalibi ilaykal basaru xaasi an wa huwa hasirun nee na ba ko waxee rek fa xaamal jamalu ka annahu lam yakun bihi shay'un gëléem ga daal di jóg taxaw mel ne dara mësu koo jot waaw kon ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax ci loolu ma leen wax beneen bi ci topp mooy téere bi ñuy bëgg a indi xulamaa uy wax nañu ne li nga xam ne moo di xaasam te moo di dindi ak njabar ci nit ak lépp loo xam ne boroom làmmiñ wu bon wala boroom bët bu bon moo ko def ci nit wala koo xam ne dañoo dem njabar la def ci yow ak njabar wala njabaru waxteef def ko ci nit yi yëpp lu ci nit mën a lépp lu ci mën a gaar doomu aadama soo ko ko bindalee mu takk ko dafay dal di jóg fii saasa maanaam koo xam ne ak njabar moo ko tëral wala koo xam ne ak njabar moo ko gaar wala koo xam ne feebar bii mu tëdd leer na ñëpp ne ak njabar la wala bët wala làmmiñ bindal ko lii ab téere mu takk nga bindal ko ko mu naan ci nga bindal ko ko mu sangu ci li may bëgg a wax bu soobee suñu borom fa saasa dana yëgle li nekkoon ci aw yaramam dañ moom it nag xolamaaw yi wax nañu ne li nga xam ne moo ko tax a jóg moo di dinde ak njabar foo ko takk ci sa yaram baax na kon loolu ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax waaw téere baa ngi nii nag jàpp leen bu baax li may bëgg a wax xaw na gudd tuuti xaw na gudd tuuti moom nag ngeen baal ma benn yoon képp laa koy mën a jàng ndax téere bi dafa xaw a gudd waaye enregistré leen bu ko defee ngeen man koo déglu man koo bindaat dangay wax bismillahi rahmani rahimi radattu haynal haini alayhi wahala ahabinnaasi ilayhi fi kabidihi wa yatayhi wa ahabbi maalihi ilayhi bi isnillaahi taala almuhiiti bima ladayhi wa in yakaadul ladina kafaru la yaslixuunaka bi abseerihim lamma samihut dikra wa yaquuluuna innahu la majnuunun wa ma huwa illaa dikrun lil aalamiina allahumma inniya as'aluka yaa kaashifat durri darri yaa kaasifat durri dariiri yaa mujiba dahwatil habdil faqiiri yaa mannil hasiiru alayhi yasiirun an takshifa hamman xuliqa alayhi hada alkitaabu kulla haynin naasirit naasi naasiritin wa nafsin haasidatin yaamanil xuluubu tar jifu min xasiyatihi wal waljibaalu tuddak diku min haybatihi walbahru yafiidu min jar min min sajratihi wassamaawaatu wal ardu fi xabdatihi wat dunyaa wal aaxiratu fi mamlakatihi yaa man xaddara ashyaa bi xudratihi wa dabbar wa dabaraha wa dabbaraha bi hikmatihi wa ajraha ala iradatihi yaa man yusabbihu yaa man yusabbihu lahul lahu rahdu al mujaljilu waddiyaa'u wassalaamu washuhooru wal ayaamu wadduhooru wal ahwaamu wal mataruwa wal mataruwa wal mataru wal xamaamu wa mahtadaa wasaara wama waqafa wahaara kullu cheyin hindahu bi miqdaarin yaa shaafi kulla si saxamin min saxamihi yaa xaabila tawbatin habdi hinda nadamihi yaa muxrija yuusufa min junubi wa sulmatihi yaa kaashifa durri ayuba min waj min wajahihi wa alamihi iksif hamman halaqat hamman halaqta hamman halaqtu hamman halaqtu halayhi haatihil hazimata huyoonan naasiriina wa hasadal haasidiina wa sharra xalqika ajmahiina yaa zal quwatil matiini yaa haqqu yaa mubiinu yaa laa ilaaha aalamiina wa sallallahu ala sayyidina muhammadin xaatimin nabiyiina wa ala alihi wa sahbihi ajmahina ñaareelu yoon bi nag ëmmadi laay bàyyi mu waxal leen ko ëmmadi kaay fii <laughs> nga jàngal leen ko <laughs> ñaan gi dafa xaw a compliqué dafa xaw a gudd wala Jóob Jóob kaay jàngal leen ko fii kaay ma jox la téere bi parce que lii moom jaaraat ci weneen yoon day compliqué ah loolu moom day metti parce que ñaan gi dafa xaw a gudd kon loolu ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax xam na solo waaw ah. mu ngoog kon léegi ñi nga xam ne jot nañ koo enregistré buñ ko dégluwaatee daañu ko mën a bind parce que bu ngeen gisee ma di ko wax baat par baat euh, dama bëggoon ngeen mën koo bind moo tax maa ngi nuyu bu baax a baax euh, sama euh, sama sama sama jarbaat muy soxna Xadi Mbàkke soxna Xadi Mbàkke mu ne woy juróom soxna baali Mbàkke di sama mag mi ngi teewlu waxtaan wi di ko rafetlu di ñu ñaanal yokk ci xam-xam bi ak fan wu gudd ci suñu barkeb maam sëriñ Touba ak maam Borom Cham jërëjëf soxna Xadi Mbàkke bala sama jarbaat la ak way juróom soxna baali Mbàkke maa ngi nuyu bu baax it eh, naa gay moom fële ca kër sëriñ Bass Abdou Khadir moom sama xarit la mi ngi wax ne bàyyi na ma waaye xam naa dafa mel ne moom moo ma bàyyi. bëgguma koo catu waaye <laughs> parce que loolu laa doon jàngale léegi waaye xam naa moom xaalis bee ñëw rek mu daal di may bàyyi Ahmadou Nagay maa ngi lay nuyu kon loolu tabaarikallahu maa ngi koy maa ngi rafetlu bu baax a baax eh, message bu am solo bi waaw mu ngoog ay ca kon ba mbokk yi beneen bi ci topp xam naa luy dindi ab liggéey comme joxe naa ko léegi beneen bi ci topp dafa xaw a gudd dafa xaw a gudd waaye xam naa ma tegal leen ci bayre butik ak bayreb njaay ak bayreb tool ak bayreb oto yow mi nga xam ne dangaa am ay tool wala yow mi am boutique wala magasin wala yow mi jaay oto wala ngay luye oto walla yow mi yor marchandise mu man di doon ta di ko jaay bayre bii may bëgg a wax yow la gën a concerné da koy bind da koy bind dangay bind njalbeenuk sóoratu raxdi ba ca xawlihi da bind bind njalbeenuk sóoratu raxdi ba ca xawlihi yatafakkaruuna waaw kay nga bind ko ñeenti yoon nga bind ko ñeenti yoon bu ko defee nga teg ca bu ko defee nga teg ca Euh, bu ko defee nga teg ca alif laam ree maanaam xaraf yi da koy bind min awali sóorati raxadi mu tàmbalee ca boppu saar wa ba ca ilaa xawlihi kon ni ma ko waxee léegi yet euh, euh, ba ca yet ba ca ja bi yeta fàkkaruuna danga koy bind ñeenti yoon da koy bind ñeenti yoon léegi nag bu ko defee danga koy bind ci ñeenti kayit boo ko bindee ci ñeenti kayit bu fekkee palaas la koñ bu nekk nga takk fa benn léegi nag dinaa jàng léegi aay yi li maanaam li nga war a bind lépp dinaa leen ko jàngal ba leer incha allah léegi nag bu ko defee nga bind aay nga bind ko da nga bind ñeenti kayit maanaam li may bëgg a wax ko wax léegi ci kanam dinaa ko leeral boo ko bindee ñeenti kayit maanaam koñ bu nekk nga teg fa benn bu dee parking la bu dee tool la koñ bu nekk suul benn bu dee boutique la wala magasin koñ bu nekk teg fa benn bu dee marchandise la itam fa mu nekk koñ bu nekk teg fa benn lan ngay bind da ngay bind bismillahi rahmaani rahim alif laam miim ree tilka ayatul kitaabi wallazi unzila ilayka min rabbika alxaqu walakin aksara annaasi laa yuminuun allahu allazi rafaha alsamawati bi xayri xamadin tarawnaha summa stawe ala alxarshi wa saqara alchamsa walxamara kullun yajri li ajalin musamman yudabbiru al amra yufassilu al ayaati laxallakum bi lixaa'i rabbikum tuuxinuuna wa huwa allazi madda larda wa jaxala fiiha rawaasiya wa anhaaran min kulli samaraati jaxala fiiha sawjayni snayni yuxsi nahaara inna fi dalika la ayatin li xawmin yatafakkaruuna mu ngoog loolu rek ngeen di bind ci ñeenti kayit def ko ci ñeenti koñ bu ko defee incha allahu taala mbooloo mi daal di daal di si la mbokk yi beneen bi ci topp xam naa boobu lay tëje mooy feeñalub sàcc maanaam feeñalub sàcc li may bëgg a indi nag nekkoon na loo xam ne lu mag ñi daan jëfandikoo la lu mag ñi fonkoon la ngir barkeel gu mu barkeel ak barke bu ci yàlla def moo di su fekkee dafa am lu ñu la jëlal maanaam lu ñu sàcc te ak jéeñaate am ca li may bëgg a wax nag mbokk yi dafa efficace de fexeel ba maanaam ñi nga jàpp ne ñoo ko sàcc moom bu kenn dem waaw bu kenn dem ndax lii moom boo ko defee ci saase da ngay xam sab sàcc kan la waaw na fekk nag ka sàcc nekk ca mbooloo ma waaw kay bu ko defee nag bu fekkee ak giiñaate daf caa am te gëñu ko giiñ ma nga ca ma nga ca mbooloo ma léegi da ngay jël miisu mburu dangay jël aw mburu woo xam ne damul fenn nga bind ca laaye yii bañu mat boo noppee nga daggat mburu mi def ko ay morsa def ko ay daggat daal di koy tàcc barab ne jël leen lekk wallahi wa rabbil ba ki sàcc moom du masa lekk ci àdduna xalaatu ko sax nag même bu buñ doon jël mburu mi di ubbi gémmiñam takk ko di ko dugal ci gémmiñam du dugg maanaam mburu mi du mën a dugg ci gémmiñam même moom lu mu bëgg a bëgg a jël lekk du mën a lekk bu ko defee ñu daal di xam ni kii mooy sàcc bi waaw léegi nag boo leen ko tagalee moom moom boo leen ko tegalee rek yow toogal di leen xool waaw ki sàccul moom day jël rek moom dagg lekk moom moom du am benn problème waaye ki sàcc moom yàlla xam na ni mburu mi du mën a dugg gémmiñam ak nu mën a def du tax mu lekk incha allahu taala li ngay bind mooy da ngay bind bismillahi rahmaani rahim wa is xataltum nafsan faddaaratum fiiha wallaahu muxrijun maa kuntum taktumuun nga tekke yatajarrahuhu wala yakaadu yusiixuhu wa yaatiihil mawtu min kulli makaanin nga tekke womaa huwa bi mayitin wa min waraa'ihi hasaabun xaliisun nga teg ca alaa yasjudu lillahi alladi yuxrijul xab'a fi samawaati wal ardi wa yaxlamu maa yuxfoona wa maa yuxlinuuna allahu laa ilaha illa huwa rabbul harshil xasiimi wa bil xaqi anzalnaahu wa bil xaqi nazala wa maa arsalnaaka illaa mubashiran wa nasiran sallallahu alayhi wa loolu ngay bind ca mburu ma bu ko defee daal di koy teg daal di acca gaa yi jël leen lekk maanaam ki sàcc moom du mas a lekk moom moom lu mu mën a defit du tax mu lekk kon loolu bàyyi leen ci xel bu baax a baax xam na solo xam naa tey foofu laay teg sama baaraam bëggoon naa joxe leneen nag rawatina yenn ci feebar yi ak seeni saafara yooyu yëpp bëggoon naa cee ñëw waaye xam naa ne waxtu wi waxtu wi ñu war a ubbi téléphone bi jot na damay bàyyi Amady rek bu ko defee mu yaatalal ma jataay bi ci 88 628 14 14 wala 88 628 14 15 ay ca kon ñu daal di jël suñu auditeur bu njëkk ci téléphone bi yegsi na salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah baaxalog ki daan tëj moo ubbi tey. Eh? ma ne ki daan tëj tey moo ubbi. doon yaa daan tëj téléphone bi tey yaa ko ubbi Pape Sénégal. waaw caabi bi caabi la de tey de xaw ma foo jaar ñoom sëñ Babacar Diakhoum Pa ak ñoom Père Mama. ñoom ak ñoom ak ñoom euh, borom Risatol Maawo Maawo waaw foo euh, kay Risatol waaw foo jaar ba jiitu leen daal jaaxal na ma. <laughs> Ah, ak ñoom Amadou Diallo ci xaar yàlla. maa ngi lay nuyu bu baax. baaxal ñu ngi lay fay bu baax a baax di la ndokkeel. di la jaare bu baax a baax di nuyu éditeurs yi. wax nga dëgg la ndeysaan di nuyu bu baax waajo nekk ci cabine technique bi. Amady Ndiaye. Amady Ndiaye ah. dëgg la de Ndiaye. Amady Ndiaye Ndiaye. Ndiaye Amady eh, la sant de santul Ndiaye. doomu bàyyi Sénégal Ndiaye doomu bàyyi Kayna Ndiaye doomu bàyyi Dakar mm. Ndiaye Demba Ndiaye Ndiaye la ñuy jaay ci marché la de. xaritu <laughs> yi. wallay ndeysaan. maa ngi bu baax a baax. jë jërëjëf ñu ngi lay fay bu baax a baax. di yàlla dool leen sutura ak teraanga. amiin yaa rabbal aalamiina. ah di nuyu yàlla Diop. ma nga nee toog jàkkaarloog ñun. ah jaayeen beeg jëfeen bi moom buñ joxee jotaay tawaar kàlla. kii la de. Ah, waaw. <laughs> wallay di nuyu bu baax suñu président. wallaay. Basirou Diom jàmbaar Faye. Basirou Diomaye fay jam jàmbaar Faye laa wax. ah Basirou jàmbaar Faye. waaw Basirou Diom ko yàlla may njàmbaar. amiin. wallaay wallaay ndeysaan de. Diomaye Diakhar Faye man dama ko wax Basirou Diom jàmbaar Faye ak Seydina Ousmane mu fellin. sañ nga ko de. ah. <laughs> waaw. wallaahi laa gëm. dëgg la léegi nag eh, vraiment sa waxtaan am na solo. di nuyu sa benn taalibe bu ñu daal Soro Diop Soro Diop daal daal émission daa commencé ma koy woo mu coupé ma ndax yow. Soro Soro Diop ah Soro Diop bul coupé ti Pape waay. waaye yow itam pa yow itam pa bit bu tàmbalee tee ba bañ ñoppi nga soog koo kii wala nga vocal ko. <laughs> <laughs> waaw bàyyi ko rek. comme waxtu wi gars yi dañu concentré wu. waxtaan bi neex na waaw émission bi lay concentré wu de. macha allah wallaay ndeysaan wallaay ah, ndeysaan. ak mbooleem mbooleem handicapé yëpp maa ngi leen di ziar. wallaay ndeysaan ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu. say xarit lañu ñu si dëgg la wallaay fu ma tasee ñoom ñu wax ma ko. Oh, billaay wallaay maa ngi nuyu benn handicapé bu ñuy wax Isaka Niass. dam dam damaa dawal ci VDN bi. ma ne dama doon dawal ci VDN bi. ma yor ah. sama oto di dawal. Ah. ba mu yàgg ndeysaan benn handicapé daa di def nii oto bi sàkku maanaam sàkku sarax daal. Ah. ma daa di wàcce weer bi jox ko mu xoolaa ni ma kii du sëñ Maamoor. maanaam la la ma ko joxoon mu tegaat ci lu ñu toll ni ma sëñ bi force dama lay joxaat diya ne ma yow yow waroo ñoo jox mu ne ko dimbale ma ngir yàlla rek mu ne ma dama la koo ñaan ngir jëmmi sëriñ tuubaa kay ne ma ne ma ne ma téyel ma sama addiye ji ma téye ko ngir yàlla ak jëmmi sëriñ bi waaw loolu moom wane na ne ñoom suñu soppe lañ waaw ci VDN bi fan yi paas leen ndeysaan wallaay ndeysaan sëñ bi ñoom ku leen jàpp jàpp nañ la dañoo baax dañoo baax wallaay qur'aanul hakim wallaay ndeysaan dëgg la de oh, moo tax lu si bëri sa émission dama si duggee dama leen kaasal parce que parce que ta lu waral lool xam nga mooy lan mhm. du jaagi du jaagi sa émission wala dëgg la ñaareel bi ñaareel bi mooy nitu Guinée bi ci boppam ndax handicapé yi ak néew ñu doole la war a gën a bàyyi xel. dëgg la de wallaahi ndeysaan. ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom la gënoon a bàyyi xel. ñoom a bàyyi dafa wax benn aay na inna ja'alna xalifatan fil ardi. fil ardi. wallaahi doomu aadama moo ma nekkal ci kaw suuf yaa aadama yow yaa ma nekkal ci kaw suuf. inna jaal suuf wallaahi moom la. wala fële mu ne yaa Daawuda inna ja'alna xalifatan fil ardi. dëgg la de. wala léegi. aadama moomu nekkal yàlla ci kaw suuf te boroomu doomu aadama wala benn mbindeef yàlla boo xamante ne am na lu mu mën a lu boppam mu jàppalee mhm. ko ci ndeysaan mel na suñu borom subhaanahu wa taala la ko defal wallaay ndeysaan voilà leen nag ni ñi dañ ciy jën di bàyyi xel mhm. waaw di gën a jàppale handicapé rawatina tabax sii di yi di ñëw ñu am ay soxna yor mhm. seen soxna yor seen njaboot amuñu tey jii tey jii ni ngeen di jël ay ay ay ay xar di ko séddale ci mbooloo di ko ay télé wala ngeen di jël seen xar di ko baataree foo xam na ne foo xamante ne ay grand théâtre la wala foo xamante ne moom am dara yàlla nekk fa. Mm-hmm. tey ngeen jëloon ko def ko ci handicapé yi moom moo gënoon. Mm-hmm. ngeen jëloon ko def ko ci néew ni doole ñoom ñoo gonoon mm-hmm. ngeen bàyyi ba guddi ngeen jël seeni xar làqatu jox leen ko. parce que sutura dafa baax ci doomu aadama. tamit doomu aadama mënoo di ko fal ba pare. di mm. di xaaw yi suturam. dëgg la de. loolu defaloo ko ko defaloo ko mais nga xaaw yi suturam. wallaay ndeysaan dëgg la de te sénégalais léegi dafa mën gis leen ma. Mm-hmm. léegi nañu gën a góorgóorluwaat ci ñoom waaye mm. tamit góor góorgóorlu bi dañ koy tàmbalee ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo jiite. Mm-hmm. ñu jiite ci jëm seen jëm bopp ñoom ñoo war a njëkk a tàmbale liggéey bi. dëgg la. ndaxte am na handicapé yoo xamante ne weer wu nekk amuñu weer wi ñu daan jot ci weer bi. Mhm. nii woon na nañ leen ko gën a yokkal di leen ko defar par weer di leen ko jox. am na solo. parce que ta am suñu mënoon liggéey duñu toog ndax tey jii am na si ñoo xamante ne ñu góorgóorlu di yelwaan te loolu metti na ci ñoom lool. dëgg la dëgg la. ku ku ku xañoon ku ku ku sañoon doo yëkkati sa loxo di tàllal. dëgg la de wallaahi. voilà dem te nga dem fële ci école ba nga xamante ne nga gis xale ja fay jàng. Mhm. léeg-léeg ñu nekk ci condition yoo xam ne la yàlla xam doy na. wallaahi ndeysaan. ñu leen di jàppale. Mhm. kenn ku si nekk nag da nga koy napp ndax bu doon sa doom la wala bu doon man la. Mhm. la nga xool courant coupé. wala nga xool nga jékki-jékki bëgg a yéeg si kaw dara mënoo yéeg. yooyu yëpp doo ko doon sóoraale. di nga bàyyi sa xel lu bëree bëri. vraiment dañ ciy mm. kontaan lool lool lool lool te di leen ñaanal sutura te di ñaan ñi jiite nañ ñi gën leen a gëstu. incha allah waaw parce que seen programme urgence la. am na solo de. seen programme urgence la. urgence la ndeysaan Ousmane mu sell yak Bachir Diom jàmbaar Faye. na ngeen ci mm. gën a góorgóorlu. wallaay dégg nañu la. voilà ñu ngi ngeen ci gën a góorgóorlu te gëm nañ lool. ndeysaan wallaay sëñ Mamour ñaanal lañ la sutura ak teraanga ak jàmm. vraiment waxtaan am na solo. amiin yaa rabbal aalamiin am na ku ma laaj benn laaj nag. nee na am na loo ci mos a joxe ci soowu fas ci soowu fas. waaw nee na ci sañoon nga dellu nga nga jaaraatal ko si. loolu lan laati waay. ah man de am na loo ci mosoon a jàpp loolu maa ngi ko yaakaar naa maa ngi ko jàppoon deux mille vingt et ma juumal. baax na xam ma deux mille ah, yooyu la de xam naa. waaw waaw ne day toll daa am fu mu toll daal. Hmm. bëgguma ma yaakaar laaj. Hmm, dëgg la. jàpp nga na ma ko woonam. ah. na ma ko waxee woon jàpp nga ko. ndax jàpp naa ko. waaw noonu luñ koy def moom jàpp ma ko mais. ah baax na kii lu muy doon jàpp naa baax na kon danaa ko xoolaat ci téere yi fu mu toll bu ko defee ñu dellu siwaat ci. waaw incha allah mais jàpp naa nag nu muy nu pour pour pour pour koo xamante ne daa daa am lu muy sàkku daal. incha allah jigéen joo xam ne daa am lu muy sàkku. waaw baax na voilà ma làkk la ko ci arab wala du. wala doom. voilà ndeysaan baax na. baax na yow sëñ bi. jërëjëf yow itam kàddu yi rafet na bég nañ bu baax baax incha allah jërëjëf. jërëjëf euh, Pape Sénégal doomu réew mi nekk foofale ca Thiès kaay benn dëkk yaari gaar ñu koy gërëm bu baax di ko sant di rafetlu. àndam ak ñun ñi di waa rajo Futurs Médias xam naa xibaar bi rek mooy actualité bi tey daañu ko euh, jéggalu euh, ba ajuma bi dellu si ak jàmm bu ko defee ñu mën a ànd ak yéen ci actualité bi. Euh, tey deux heures euh, une heure du matin la ñuy jeexal tàkk suñu émission euh, dafa am lu ko waral ay ca ñu jël keneen 88 vingt 14 14 salaamaaleykum. allo oui salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. Sëriñ Mamour wax loolu. <laughs> Babacar Diakhoumpa. Alaaji Babacar Diakhoumpa. maa ngi lay wallaay ñu ngi lay fay bu baax Diakhoumpa. di commencé suñu aaye rek war a fànnaawu makaanan aliyen. wallaay ndeysaan. wa yansuruka Allaahu nasran aziizan wallaay ndeysaan wa maa maa yanfa'u naasa fa yamkusu fil ardi wallaay ndeysaan wallaahu yaxsibuka minan naasi ndeysaan amiin ko yàlla defal amiin barke Seexul Xadiim barke Seexul Xadiim amiin amiin barke Ahmadul Xadiim kuy joxe ñaan di laabire doomu adama yi ku dugg war naa laa ñaanal ndax boo sa yàgg fi sunu njariñ li moo tax ñun ñëpp la war a ñaanal dëgg la ndeysaan moo tax ñaan yi ma la koy tijj ma la koy beral yow kese. dëgg la ndeysaan. yàlla yal na ko yàlla nangu suñuy ah, ñaan ci yow. di kontaan nag démb bañ fa ñëwee maak Alioune Gueye. wallaay ndeysaan. kontaan na trop. alhamdulilah. bu ñu génnee nee na sama xol ndax tey gis naa sëñ Mamour. ma ma profité di wax waa Sénégal yëpp ne leen lu jëm ya mujjee na ñëw <laughs> lu jëm ya ñëw na. walaay ndeysaan. heureusement nag mujjeewul waaw lu jëm yu tooy yu rafet la. damay damay jigéen ñi naan lu jëm yu fere. waaw ah, ah. lu jum yu fere la. lay ndeysaan wallaay jot nañ ci lu jëm ya mujj na ndeysaan wallaay ndeysaan te neen du yem ci loolu sax na leneen lu nati préparé moo moo daal loo la ko fay wallaay ndeysaan ku baax la incha allah yàlla ma lool ci yow wallaay ndeysaan baax nga a baax rek ñaanal yàlla rek fan amin di la jot nuyoo gaay yu baax Pape Seydi fii si Fass Tëngéej ñu ngi lay nuyu. ndeysaan Moustapha Diallo nag moom rëbës la nekk defal ko ñaan bu baax a baax a baax Moustapha Diallo ci rëbës waa rëbës dañ lay xel de wallaay dëgg la waa prison rëbës prison rëbës daf ma woo keroog yàlla xam ne sama yaram da doon daw ndeysaan mu ne ma amuñu benn occupation bu bu sëñ dañu yàkkamte sa émission bi commencé ndeysaan di ko déglu yàlla xam ne prisonnier yëpp ndeysaan natt bi leen yàlla teg yàlla leen yàlla teg ci barke yonent bi amiin yaa rabbal aalamiin amiin yàlla mun na ko sañ na ko yàlla ko yàlla def amiin moom Moustapha Diallo moom moom yàlla na ko yàlla génne foofu mu nekk wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan ak Pape soxna Asi Mbaye moom xam naa danaa ko indi sa kër insha allah moom suñu dëkk fii sanc ba Tëngéej bu ci yàlla andee insha allah ak Sidi Naare mi lay nuyu bu baax a baax a baax maa ngi koy fay di jox nuyoo soxna Sukay Nataal soxna Sukayna Taal ndeysaan taalibe sëñ Babacar di nekk Dakar wallaay taalibe sëriñ Babacar si moo ñu nekkal fii ci Dakar moo jiite section Dakar bi wallaay ndeysaan section Dakar bi waaw ak Kumba Mbeng dëgg la fële sa Mbuur di yaayu daara wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan sala fii ci sànc bu tëngee ñu ngi lay nuyu wallaay ndeysaan maam leena wasa maam leena wasa ndeysaan damay bañ a guddal nag parce que ñi la soxla dañoo bari wallaay am na solo lépp rafet na di la jot ñu nuyoo waate sama xarit Diop mi ngi lay dégg ak Amady Ndiaye maa bu baax a baax ak Père père Mama bu Sidaat. père Mama xam naa ne mi ci ligne bi xam naa su ma dina dugg. maa koy nuyu ni ku baax la. wallaay ku baax la ndeysaan. ak El Hadj Aline Fall ànd a ku baax la ku la sopp la lool. wallaay koy fay bu baax a baax. ndeysaan la sopp dañoo bari lool ak góor bee fii si jogo mi ngi lay nuyu bu baax a baax a baax. dëgg la ndeysaan kontaan nañu. ndax yonent bi na xayru kala maa xalla wa dalla. wallaay ndeysaan. ñi la soxla dañoo bari bàyyi bàyyi ñeneen ñi dugg. barkeelu alhamdulilah alhamdulilah. fii amaanillah wa rafanaaw wa in sukaraaw nasran azizan wallaay ndeysaan wa amma maa yanfa'u naasa fa yamkusu fil ardi wallaay ndeysaan wallaahu ndeysaan amiin asalaamu aleykum wa rahmatulahi taala wa salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërëjëf eh, Babacar Diakhoumpa eh, di woote foofale ca eh, Tëngéej ñu koy gërëm bu baax di ko sant di nuyu waa Tëngéej gi yëpp bàyyi ñu kenn 88 la 628 14 14 ñu jël keneen ci téléphone bi salaamaaleykum Mamour. Mbacke Balla. sëñ Mouhamed Diakhaté sa ndongo li Mbour. sëriñ Mouhamed Diakhaté ca Mbour. ñoo mm, rabbal aalamiin. yàlla barke Matlabul Fawzeyni. min dara. min wa jinnin wa basar. Ah, amiin barke Ahmadul Xadim amiin. waaw allah incha ah, allah. Ah, wallaay ñi ngi ci sax nag ñi ci yëpp ndax euh, mm-hmm. damay faral di wax naan mm-hmm. euh, gëstu rek jàng rek mm-hmm. waaw ndax dañoo war a xam ne ni ne ñu duggee course yu génnee aras amee ci xasaal yi duggee aras wàcc see course yu am ci xasaal yi duggee laxu génnee xawaa yu ndax buntu bu rek waaye lépp loo xam nit ki bëgg na ko te mu doon domenam mm-hmm. war na caa mën a jàng topp ko bu baax a baax a baax mm-hmm. Mm-hmm. waaw te it ñu ngi leen ci xaar te it yaakaar nañ leen ci bu baax a baax a baax wallaay ndeysaan kon insha allah rabbi yàlla yàlla doolu dëgëral rek amiin yaa a alamin waxtaan bi ñu ngi koy teewlu bu baax a baax a baax wallaay ndeysaan ngaa baax rek ah, yéen yéen ngi rafet na te it xam-xam bi wér na ndeysaan alhamdulilah kon kon yàlla yàlla sëriñ jàpp bu baax wallaay ndeysaan jërëjëf jërëjëf jaxate jërëjëf kontaan naa jërëjëf euh, sama xarit boobu di sama soppi boobu wax dëgg yàlla moom itam euh, sama fidèle auditeur la ñu koy gërëm bu baax di ko sant di rafetlu ànd bi mu ànd ak rajo Futurs Médias RFM 94 point 0 88 628 14 14 salaamaaleykum. waaw yegg si na de borom émission bi. waaw sëñ bi yaay borom jataay bi de Père Mama. wallaay ñu ngi lay delloo ziar bu baax a baax. di ziar léegi. wallaay mi ngi lay nuyu léegi ndeysaan. ak fii Sénégal. Pape Sénégal. Pape Sénégal ñoom. wallaay ndeysaan. Dafe. maa ngi nuyu ah, Dafe wallaay Dafe. waaye dama fàtte tudd waaye dafe daal la tudd dafe. dafe ayib dafe wala. te te taale bi sëñ Saliou mi ngi lay siyaare. sëñ Saliou maa ngi koy fay. waaw en place de dépendance mi ngi lay démb rek may laaj naan ma sëñ bi émission bi suba la de ma ne ko ah, waaw. wallaay ndeysaan. boo nga teewlu te déglu rek. dëgg la am na léegi de taxaw ma naan ma sëñ bi commencé na dégg naa mu naan car ma yéen ko noo def. Pape <laughs> dëgg la de <laughs> wallaay ndeysaan dëgg la <laughs> de. ah alhamdulilah kon ndax yàlla. ah, ah kon de loolu taw feex la. waaw maa ngi ah, Makumba Makumba. Makumba maa ngi lay nuyu. ak ñu lay ziare sëñ bi bu baax. koy delloo ziare bu baax di ko ndokkeel. ñoom ñu ngi teewlu dafa. yaatu de. ndeysaan macha allah. fii moom sëñ bi moom. Mhm. damaa kontaan sax man. wallaay ndeysaan ñoo gën a kontaan. waaw kontaan naa de incha allah sëñ Fallou sëñ Fallou. waaye nag day xaar mhm. mhm. ndeysaan wallaay ndeysaan kontaan nañ ci bu baax a baax. waaw bu baax sëñ bi Mbacke Balaye. wallaay bég nañ bég nañ bu baax nag. ndeysaan siyaare sama gaa yooyu Jóob ak ñooñu fi des nu mu ngi lay dégg ndeysaan. nuyu ma ñëpp. incha allah ñëpp danañ ko dégg ba ci jaay na ba jaxate ah, amit mm-hmm. ko amit ko yëmbal on na sax ñu may seeti sama kër di ma wax kay naan ma woonaa père mama ndeysaan waaw wax na dëgg bëri na ñëw duma dima li mën am balaa émission bay jeex sax damaa jëm Fass Mbao rek mën naa am balaa bu ci yàlla andee incha jërëjëf Mbacke Bala jërëjëf jërëjëf jërëjëf euh, Père Mamadou Sidat Baye Fallou Serigne Mamor Mbacke ñu koy gërëm bu baax di ko sant di rafetlu ànd bi mu ànd ak ñun ma fàttali leen ne tey émission bi une heure du matin la ñu koy jeexal actualité bi euh, daañu koy euh, jéggalu ba ajuma bi dellu si ak jàmm daañu ci dellu siwaat ajuma bi di ñëw mais tey malheureusement actualité bi duñu ko def 88 628 14 14 salaamaaleykum. bisimilah. bisimilah salaamaaleykum. sëriñ bi. Mbacke. ñu ngi lay ziara. ñu ngi lay delloo ziare bu baax ku wax loolu. Mamadou Fall. Mamadou Fall ca Paal. mooma de. wallaay ndeysaan naka waa Paal. sant yàlla mu wér ak góorgóorlu. naka njabootu rawaan gu tedd gi. wallahi ñu ngi fi di baax rek. wallaay maa ngi leen di nuyu di leen ziara. ñu fi baax de ñu ngi delloo bu baax wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan. naka yitte yi. ñu ngi sant yàlla bu baax. ñu ngi si sant bu baax Fall wallaay ndeysaan eh, xam na émission bi daf ma jot a rëcc lu bare dëgg la Fall wallaay Fall dama newoon ci yeneen i yitte dëgg la ndeysaan dëgg la Fall léegi laa dugg ci néeg bi rek mu ne xaaral ma jàpp rek tombeek eh, Pap hmm. Sénégal moomu di wax dëgg la Fall waaye xam naa ni hmm. lu am solo rek comme na mu daan amee solo macha allah moo fi jaar ndeysaan eh, di rafetluwaat sa taxawaay alhamdulilah ndax yàlla di bëgg lool nag ci topp gi la nit ñi topp ndax mhm. euh, lu amul njëriñ moom kenn du ci yàgg dëgg la de la bokk mhm. ku ci nekk la la amal njëriñ loolu ngay yàgg mhm. bu dee safaan te mu amal nit ki njëriñ sax bu ca yàggee loolu mooy yitteem waaye fu mu mën a jëmit la mu nekk baaxul dëgg la ndeysaan eh, rawatina nag bu dee lu baax eh, boo yàggee it doo ko rëcc wallaay ndeysaan lem bu ñu du ko yëngal tuur. dëgg la dëgg la. Eh, ma dégg léegi nga ni Babacar Diakhoum fa lujum ya ñëw na. waaw ñëw na de. ba laxul. déedéet mujj ah. fere na nag fere na lujum yu fere na. <laughs> man eh. man kay xam naa damay profité invité waa Sénégal yëpp ne ku bëgg lujum rek na ñëw. ah macha allah waaw lujum ya bëri na. Sénégal gi yëpp maa leen amee lujum. rafet na de. suba kuy togg ceebu jën rek ñëwal ma jox la lujum. rafet na de. wallaay ndeysaan. am na kii am na pulloo xupir. lépp nga ca kay. pulloo xupir ak ba jàpp boori Canaba ak Ndiassane pulloo yëpp nga ca. sëñ bi pulloo xupir bu ñu lakk ci doom bu tàng jir. hi yaa ngi wax lu am solo nag. yaa ngi wax lu am solo sax. ba nitu Ndakaaru xamu de. dañ ko daan def loolu mën nga cee lekk ba suur këll. laa rawatina buñ noppee ñu suy xorom waaye doom amul Ndakaaru. ba mu yéen. Dakar xam amatul dóom amul Dakar ba dóom di wallaay matt amatu fi moom ñëpp ki fi signé xaw ma micro onde la yu kenn xamul yàlla nañu yàlla. micro onde de kenn du ci dugal ñoom te doy na waar kay. wax nga dëgg de lii de daan nañ ko def daara ja daan nañ jël ñaam suul ko ci doom bu tàng maanaam bu noppee day nooy ba pare neex am xeetu guur lakk boo xam ne xeex naa ah. jar na ko lu koy xeex bi mu ci mujjee xeex. jar na doom lañ doom lañ ma sànni. ci bët na ko de ba damm nga ci bañ rek jar na ko de jar na ko jar na na dem fu de laa ilaha illallah. loox bu feree rek nga sànni ci doom bàyyi ak. ba day jékki muy muy muy muy xeeñ. nga gis doom bi mu naan pët. pët nga gis waaw ma ngay ma ngay <laughs> xam naa ko bu <laughs> ku jaar ci daara xam na ko ndeysaan. yàlla yàlla barkeel la. jamono jooju daan nañ ko def puloox daan nañ ko def pataas. pataas waaw. daan nañ ko ko def. waaw waaw. daan nañu ratt itam meew. waaw. bu ko defee togg ko ci kii bi ba mu doon benn benn dax. meew mu ñu ratt léegi ci xar mi. nga teg ko ci taal bi maanaam da daan neex façon neex boo xam ne. waaye sëñ neexatul. Sénégal yàqu na. yàlla yàqut waaye bi yàq tànk nañu rek. yàq nañ ko wallaay lépp a yàqu ndeysaan ay hamburger ay bif. Ah, yooyu yooyu teg moom ku koy léegi tey ñu biif la moom tey <laughs> yee te te ku bif teg moom ku ko moytuwul léegi tey malaaka mi bif la rek teg. nga dem bàq ya ñu naan fuñ koy teg dem bàq ya moom mu dem. ah <laughs> non yow demagoo. <laughs> na yéex. non yow demagoo ah. ca kanam moom ñaan desandi feeg yow gis benn vidéo ci internet bi. waaw xale bi naan doom ji papa yàlla nga dem na mu ne ko yàlla na yeex mu ne ko bu gaaw. mu ne ko déet waay neel <laughs> yàlla ma ne ko ne ma ne ko ne yeex kay bu gaaw kay musiba la. kooku jërëjëf Mamadou a ñu ngi lay gërëm sant ñu jërëjëf kontaan nañu bu baax a baax. jërëjëf ñoo gën allah ñu fanaan ak jàmm nuyul ma waa Paal yëpp incha allah jërëjëf. ci Amady tëjal ma téléphone bi nga baal ma nag ma nuyu ñetti ñi nga xam ne dañoo taseeg man wax dëgg yàlla yëkkati addi ju am solo teg ci sama loxo mu di Abdou jaañ moom tey jii la ci suba foofu la ci estation sel bu foire bi euh, mu yëkkati addi ju am solo jox ma ko Abdou Abdou Diagne Fall Abdou jaañ Fall maa ngi koy nuyu di ko si siyaara di nuyu bu baaxin Mbaye Thiam mu tase woon ak man la ca Difoncé yëkkati addi ju am solo jox ma ko mu di Mbay Caam moom itam maa ngi koy nuyu di ko siyaare ak Serigne Maguette jum moom ñu tase woon ca Ouest Foire palaasu kuñ naan Omar Lukaar moom itam mu yëkkati addi ju am solo jox ma loolu lépp ci fan yi passé la ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant di leen jaajëfal ndongo ka kon tey ñu jéggalu actualité bi dig leen daje ba ajuma ji dellu si ak jàmm ci seen beneen émission yóbbalu julit sëriñ Mamor Mbacke kenn sëriñ Touba ci woon micro bi Amady Dia ci woon xarale génn askan bi ci woon déglu bi ñuy sant ñëpp di gërëm ñëpp di ndokkeel ñëpp di bal xaq ñëpp di bal wàq yàlla may fanaanam jàmm ñu fanaan jàmm ba suba ak jàmm incha allah jëf ci déglu bi مرامي وجاتي ربي توجهت بعمد وشكر وهو لي كان